auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti nit ñi yewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision wala fajri rawatin nag seen émission diine ak jamono tey ñuy waxtaane wàllu yoon ndax li ko waral itam mooy yoon dafa taxaw ci suñ kanam tey jii gannaaw bi ñu defee rentrée de cours et tribunaux président de la République moom Macky Sall dal di ci porondo lu am yu bari yoo xamante ne indi na ko wala boog ñu junj ko ci ay coppite yoo xam ne dafa dem ci wàllu yoon te fekk yoon woowu itam ñëpp soxla ko ci réew mi ndax ñuy waajal élection mu am lu ñu ci duppee parrainage ñoom ñoo koy saytu bu ñu dem élection ñoom ñoo koy taxaw bu ñu paree itam ñuy ay arbitre yoo xamante ne mënuñoo ñàkk dañoo am solo ci doxalinu république tax nag yoon boobu itam ci ay jamono ci ginnaaw ñu song leen song yi métti la ko waraloon itam mooy atte boo xamante ne am nañu ci gisuloon seen bopp ba am kàddu yu ñu ci yëkkati président de la république ne nag léegi euh, ñoom waa exécutif maanaam état taxaw na ngir jël ay matuwaay yoo xamante ne tey jii day fexe ba lépp lu ñëwati ci jamono yi war a dal ci kaw yoon dinañ ci mën a jël ay matuwaay yoo xamante ni dinañ ci aar yoon leneen la mooy waa yoon ci seen bopp nee nañu tong bu ci nekk léegi rek dinañ ko mën a dëkku ndax itam dinañ jël seen matuwaay matuwaay ñoom itam ci fan woowu loolu itam buñ koy wax dem na ci sorti waa société civile yi ne justice indépendante dem na ci sorti waa société civile bi ne justice ni mu neexuleen leen te gisuñ seen bopp ndax gis nañ ne am na ay rëq-rëq yu ci am dem na ci itam yi nga xam ne mooy nu ñuy duppee nouveau média ak réseaux sociaux yi nga xam ne tax na sax bâtonnier bi ne dafa gis ne li daal fitnaal doomu aadama ak xalaatam lam fu war wax xalaatam ndax moom bâtonnier nee na am na groupe nit ñoo xamante ne ñu ngi ci internet buñ ne ñuul na boo newoo boo ne ñuulul wala newoo kukk dañ la ñuulal ba nga ne kukk ndax àndoo ak ñoom xalaat te loolu itam moom gisewul noonu loolu tax ñu ne tey nañ ci waxtaane waat ba xam ndax exécutif judiciaire ak législative lañ wax bu demee nag ba exécutif war a si itam judiciaire ndax loolu lu jaadu la ci loo xam ne dañ ne la justice est rendue au nom du peuple peuple boobu bu demee bay dal ci kaw justice ndax lim àtte def ko neexut wala lim àtte dafa jaaduwut loolu itam lu jar laaj la tax ñu ci prier ci ay nit ñoo xamante ne seen xam-xam def cee màcc ñu fas yéene ko waxtaane maa ngi fi ak ñu wax Rosner euh, Lissoutan euh, euh, Aloussitan Ludovic juriste di consultant Euh, Ludovic maa ngi lay nuyu. invitation di nuyu samay ñi ma bokkal plateau bi di ñaan yàlla ñu mën fa wax loo xam ne am na njëriñ. jërëjëf maa ngi fi ak maître Moussa Bokar Thiam di maire Ourossogui nekk itam avocat nekk porte parole adjoint du parti socialiste Moussa Bokar Thiam maa ngi lay nuyu. waaw lay nuyu euh, Ousmane mhm. Sène. Mhm. di la remercier ci invitation bi. Mhm. E di dooree sama nuyoo rek ci mbooloo sénégalais yi seetaan émission bi. Mhm. E di jaale Sénégal yëpp nag e, génn àdduna Sidy Lamine Niass. mu nekk grande perte pour tout le Sénégal. donc ba léegi koy jooy. Mhm. parce que xam nañ lu mu def rëy na. Euh, am solo la fi def la fi bàyyi. Mhm. donc euh, ñu ñaan yàlla daal yàlla suuf kaw Kaolack euh, oyof ci kawam. Mhm. et que yàlla daal tas laas barkeem daal. amiin kon nag maa ngi leen di nuyu seetaan émission yëpp muy thème solo nag boo xamante ne. Mhm. c'est important Sénégal fi ñu toll nii. ñu a toog waxtaan. jërëjëf waxtaan ci bi am solo. jërëjëf maître Moussa Bocar Thiam maa ngi fi ak Mountaga Cissé di formateur formateur ci Nouveau Média bu ñu waxee Nouveau Média nag dem ci xarala yu bees yooyu nga xamante ne. Euh, am na lu bëri loo xamante indi na ko ci coppite ba ndax nit ñi itam dina nañ indi yeneen xalaat ci wàllu yoon Mountaga si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Ousmane di mm-hmm. nuyu Sénégalais seetaan di rafetlu invitation bi te am yaakaar ne liñ fi war a waxtaanee dina am njëriñ. di leen gërëm di leen gërëm itam ci ñu ngeen ne wuyu suñu suñu invitation. Mm-hmm. Euh, kon euh, Rosner Ludovic parce que mm-hmm. ci yow laay njëkke dañ gis keroog ci rentrée de cours de tribunaux président ne nag. l'État donc euh, va prendre toutes les mesures nécessaires à la situation pour mën a protéger euh, les magistrats loolu itam juddoo ci coow loo xamante ne à chaque fois bu ate amee rek am na ci loo xamante ne nit ñi dañ koy ñi dal seen kaw yu mel noonu. Mhm. Euh, moom président Mamadou Badio Camara itam wax ne ñoom itam mën nañoo taxaw léegi nag pour faire face nee nañu itam pare nañu daal faire face à toute forme de pression loolu boo ko déggee ci wàllu yoon wala wàllu atte. lan la ci xel mën a xalaat ni moom moo war a jur ba ñu agsi foofu. waaw man wax boobu bett na ma bettu ma bettu ma ndax euh, defoon nañ fi élection législative boo xam ne ñëpp gis nañ ni ba nay rëq-rëq. jóge ci administration bi. ñu bëri yaakaar nañu sanctionné ministre de l' intérieur ba ko organisé woon. njiitu réew bi ne ko félicitation. tey ji encore. ñëpp a ngi ñaawlu doxalinu justice boon opposant sax ñu doon wax lii waxu opposant rek dañu sànni xeer te seen métier la mm-hmm. waaye ñu bëri wax nañ ko mm-hmm. euh, magistrat yi seen bopp wax nañ ko chaque rentrée de cour de tribunal wax ba ñëwaat indépendance de la magistrature mm-hmm. forum civil wax na ko euh, ligue des droits de l'homme wax na ko euh, jeex yeneen kuréel yoo xam ne wax nañu ni vraiment justice nu muy doxee nii c'est pas que magistrat yi mënuñ seen liggéey ndax ñoom bu ñu liggéey ci droit commun amul problème ay meurtre ay viol dañuy jugé normalement. Mm-hmm. mais saa yu amee problème boo xam ne laal na politique toujours dañu jël décision boo xam ne kan la arrangé parti au pouvoir. Mm-hmm. moo tax ba euh, bi président Macky Sall ñëwee ba léegi amul benn décision ba mën a lim boo xam ne laal na politique te arrangé wu ko mm-hmm. da ngay dem sax ba ay fonctionnaires yoo xam ne état mu leen di fay nekk corps de contrôle. ne ko monsieur le président Prodac am na problème. kut mm. am na problème dara mm. ba tey jii nii. Mm. ki waxoon Prodac ki waxoon sax of nag dàq nañ ko ndax waroo joxe rapport extra extra bref. Mm-hmm. dama yaakaar ne euh, lii dafa leer kon président la république bu dee protéger magistrat yi pour man mooy wax leen dëgg di leen yéen saa yu ñu bitim réew ngeen daanu. ndax barki démb la euh, nu tuddati. Euh, Monaco wax ni euh, débuté nañ leen. cour la CEDEAO wax nañu yéen violé ngeen li gën a yomb ci droit mooy jox na ci avocat de la procédure violé ngeen ko ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. comité des droits de l'homme du tribunal nee na li ngeen jàpp Karim Wade détention arbitraire la maanaam non seulement li ngeen def waaye da ngeen ko tooñ yéen mii loolu mooy détention arbitraire parce que koo détenir arbitraire da ko tooñ mm-hmm. vraiment ku soo bëggee ignorer loolu daf may day day jaaxal nañ ñi. dafa mel ne muy taw ci biti ma dugg sa néeg tëj yëpp tëj sa gëmm sa bët fab sa nopp ne noo tawul. Hmm. alors que ñëpp ngi ngañ ñu joxaloonu justice y compris la justice elle-même. Hmm. am na may saa yu démissionné. Hmm. d' naa nag ne président mënul di ngañ magistrature parce que on a besoin de la justice. mënul yàq seen der. waaye na am neutralité ne ah magistrat dañ ko war a dañ ko war a défendre dëgg la waaye nag y a des te bu nit ñi waxee bu ñëpp tuflitee ba lu ñëpp tuflitee di nga tooy. ma yaakaar ne kon war nañu jël ay rectificatif. c' parce que daa ngi dem élection bëggoo lu euh, euh, ñaawal sa nguur que mënoo wax dëgg nit ñi. te justice bi luñ ci wax dañu koy wax parce que suñu justice la. amul benn juge boo xam ne président Macky Sall moo koy fay wala président Abdoulaye Wade. juge yi lu ñuy juger c' est au nom du peuple. loi yi ñuy loi peuple la. li ngeen di fay fin du mois xaalisu peuple bi la. kon am nañu droit. wax ci justice bu ñu neex ñu ne dox na bu ñu neex ñu ne doxul waaye nag bu ñu ci boolee euh, saaga bu ñu ci boolee xaste bu ñu ci boolee yàq seen der mhm. parce que même bu ñu nekkul ci yoon sax soxla nañ leen mhm. ndax kenn jugé ku dul ñoom mhm. ñoom rek ñooy àtte kon nañu wax ci yarax teggin waaw bu ñu teree wax dëgg bu mu teree président public wax dëgg te xam ni leer na ni te moom sax daanu ko wax avant muy bëgg mu nekk opposition leer na ni justice nu muy doxee Sénégal bu dee am na dossier politique vraiment daal dafa dul dafa doon loo xam ne du leer du leer voilà dinañ ci dellu soit léegi Asner voilà euh, maître Moussa Bocar parce que justice dañ gis ne euh, ñun ñun super euh, protégé la mooy magistrat yooyu am na disposition yoo xamante ne aussi ci cas yu mel nii ñu ngi koy réglementé yoo xam ne boo dalee ci kaw nii am na lu la ciy fekk ak leneen bu ñu àggee ba ci président di wax ne nag dinañ jël matuwaay yi répondre à la situation actuelle c'est parce que mën mën naa jàpp ne problème am na waaw Ousmane débat tey bi dafa am solo dafa am solo parce que xam nga waxu justice la ñuy wax te boo gisee contexte bi ñu nekk tey jii ñu toog ba président de la ne effectivement foo ñu jox mag magistrat yi seen gëdd magistrat yi seen bopp ne effectivement ils ne subiront aucune pression mais soo gisee loolu am déjà nous sommes dans un contexte électoral bien particulier nous sommes à deux mois des élections présidentielles donc xam nañu élection présidentielle bu jotee wala élection bu mu toll boo amee enjeu national forcément day laal presque couche yëpp tous le secteurs notamment la justice parce que justice mooy li ñuy wax le dernier rempart tout à l'heure mm. mais euh, pour man la source même euh, euh, difficulté yi mm-hmm. mooy comme sama naataango Ludovic mi di wax léegi c'est-à-dire que ñu commence def mélange de genre parfois parce que mu wax ni nee na bon bu fekkee procès yoo xamante ne amul benn importance euh, ay ou sàcc xaaral sàcc ginaar yooyu mm-hmm. amul difficulté mais bu laale petit tuuti rek dafa mel ni magistrat yi dañuy dañuy reculer wala dafay dañuy def lu arranger pouvoir bi mais loolu c' de des propos yu mel nii la opposition wala yenn homme politique yi di entretenir dans la scène publique sénégalaise dans les médias même yenn même yenn journalistes yi loolu nag mooy tax ba finalement sénégalais bu dañuy jàpp ne magistrats yi nekk fii aujourd'hui ils sont pas là pour àtte pour àtte Sénégal ils sont là pour def lu arranger nguur bi te loolu amul mhm. man je à ça te te te fu leer laa ko teg dinañ ñëwaat parce que waxtaan bi tey foofu mu xóot. foofu ñu dem jusqu'au des débats ça parce que Sénégal at na fi nit un homme politique parce que foofu ñu xam foofu ñu xam benn un homme politique n'est pas au de la loi loolu foofu d'accord hmm. de la loi lu yoon da nga war a da nga war doxal surtout que da nga laaj la charge publique da nga laaj jox la loo xamante askan yëpp ko bokk nga ne jox leen ma ko ma téye muy mairie muy ministère muy lu mu ti doon. Hmm. yow yaa yow yaa ne bëgg nga. donc il faut que nga xam ne am na responsabilité bu nekk ci kaw non seulement reddition des comptes comme on dit loolu jàll nañu débat débat boobu jàll na fi. Hmm. mais surtout vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Hmm. yoon war a mën dal sa kaw soo soo soo jalgatee yoon. Hmm. maintenant ce n'est pas dit que maintenant y yoo xamante ne ça concerne des hommes politiques rek ñu atte ko Sénégal mu am ay institutions étrangères jox seen ñoom jox seen position rek ñu ne Sénégal suñu justice baaxul nous avons les meilleurs magistrats d'Afrique. loolu kenn kenn kenn kenn werante ko juridiction boo dem international boo dem fekk ay sénégalais yu xarañ nga fee fekk man may saa sénégalais man si praticien du droit jàngee barreau de Paris jàngee fii may saa sénégalais xam naa ay man may saa yu xarañ lañ yu xam seen liggéey xam droit xam na ñuy def maintenant il faut pas ñu entretenir la confusion hmm. un procès même fekk un homme comme Karim Wade wala Khalifa Sall il peut y avoir mën nañ ko atte atte nii Sénégal bés bi dem benn à la CEDEAO wala dem euh, dans un autre pays France wala Monaco yooyu ñoom ñoom ñoom ñu am neneen ñu ko gisee wala ONU sax joxe joxe position te bu fàtt loolu ça n'a rien à voir ça veut pas dire que suñu magistrats yi sont pas intègres ça veut pas dire que suñu yi euh, euh, at atuñu non non lecture la peut que buñ bëggee bu déglu gën a xuus dossier bi dinañ ci ñëwaat mais il faut que ñu arrêté déjà pour waxtaan mën a am euh, intérêt pour sénégalais yi parce que fii ay professionnels ñoo fi nekk suñu rol tey jii mooy gën a leeral mbir ñi ñi ñi kan amul ay ay par parlo mais nañ analyse analyse froide de la situation xam ne man xam naa ne sénégalais magistrat yi tey jii mm-hmm. ils en âme et conscience maintenant ñu ngi wax magistrat yi ils sont pas indépendants AMS UMS wax na ko loolu peut-être sama ci deuxième phase bi dinañ ci waxtaan dinañ dugg ba xuus si ba point ba bu baax ma xam ne Sénégal les magistrats sont réellement sont indépendants li ñuy wax loolu foo foo ñu leer ko manqué leer ci bopp nit ñi dinañ ci waat maître Moussa Bokatia Mountaga Cissé formateur nga nouveau média nouveau média yi nag buñ ko waxee bokk na ci ñi nga xam ne lu nit ñi wax léegi presque foofu lay jaar lu nit ñi wax foofu dinañ ko fa waxaat ndax foofu lay des tax nag euh, ñu dem ba mu yàgg itam lépp lu yoon di taxawati tey il faut que mu boole leen ci ba gis nañ ne bâtonnier bi waxoon na ne sax en fait y a des atteintes graves à la vie privée par rapport ak euh, données personnel yi loolu sax moo nekkoon te mu rentrée de cours de tribunaux ci fan woowu responsabilité boobu ñu leen di woow fan yaakaar ne foofu ngeen ko wàccee wala boog foofu lañ nit ñi di leen tuumaale ne ñàkkum responsabilité. alors man man gis-gis bi ma le fait déjà que ñi jël thème bi mu nekk euh, wàllu internet ak données personnelles mu nekk thème mu rentrée des cours de tribunaux mooy wane ne. Euh, état bi jox na ko importance magistra yi jox nañ ko importance mais aussi nekk na lu am importance pour sénégalais yi parce que booy xool léegi Sénégal daanaka ñëpp dañuy dem ci internet bi te coow lu bare boo koy gis ci média classique yi ci internet bi lay tàmbalee mais bu demee ba président de la république wax ne euh, magistrat yi war nañ leen protéger ñoom magistrat yi aussi ñu wax ne dinañ jéem a protéger seen bopp ba président ne force euh, restera à la loi Euh, kon problème am na kon wax nañ ne problème am na léegi nag dañ ko war a identifier expliquer ko xool nuñ koy saafaraa te euh, man li ma jaaxal à chaque bu ñu koy fàttali ci wàllu problème yi dérive yi ci am internet mhm. dañuy fàtte ne Sénégal am na ay loi yoo xam ne euh, teg na pour disposition yi mel noonu man dama naan kon actuellement bu président de la république demee ba wax ne war nañ ko defee nii dafa mel ne ko comme si dañu war a créer ay lois yu bees alors que on a le code pénal on a la loi sur la protection des données à caractère personnel récemment def nañ code des communications électroniques maanaam Afrique mën naa wax ne Sénégal moo ci gën a bëre ay lois ci wàllu nu ñuy gérer euh, dérive ci internet données personnelles et cetera léegi nag mais le problème mooy Sénégal yi ci seen bopp soit dañu leen expliquer wul clairement lan mooy dérive sur internet wala suñ ko defee Euh, lan moo mën a dal seen kaw mais aussi ñi xam ne yoon mi ngi ci mi ngi ciy dox parce que euh, euh, sénégalais yi bërki démb gis ngeen sénégalais bu ñu fi libéré def na ñeenti at ci ci ci ci prison bi en en détention provisoire tout simplement parce que dafa def dafa exprimer wu sur internet dafa def njumte boo xamante ne que internet moo ko moo ko ko yóbbee kon xam nañ ne kon yoon mi ngi ci mi ngi ciy def ay liggéey mhm. bien que ne mën nañ ci d' accord comme mën nañ ci bañ a d' accord si côté bi ñu féete mhm. mais gis nañ ne Sénégal am na ay loi pour ça léegi nag man damay gis ne à chaque fois dañuy créer ay loi yu bees sans pour autant ñu xool ci rétroviseur bi xool li ñu am comme arsenal juridique xool nu ñu koy appliquer mais surtout euh, fexe ba sensibiliser les Sénégalais ci risques yi ci nekk parce que am na ñu bare ñoo xamante ni que du du du bëgg def lu ñaaw moo tax ñu jóg mais dañ ko xamul dañu dafa dañ ko réere mbir maanaam xamuñu ne euh, bu ñu jëlee dana personnel u jàmbur sax dugal ko si internet xamuñu ne loolu yoon daf ko tere su ko defee yoon mën na dal seen kaw su su boobaa xëy dafay am ay problème yoo xam ne am na si daal dinañ ci jël hmm. soit léegi sax nga xam ni itam léegi internet lu ñu fa dugal dafay des loo fa wax dafay des hmm. ñu xam ne nag war nañu xool parce que président ci na lu mu ci waxoon sax nañ def proposition niveau de l'Afrique pour xool aussi nit ñi bañatee nekk di victime éternelle ci côté boobu nañ ci ñëwaat léegi ñu defi cross ne parce que maître Moussa Bocar Thiam mu doon wax ne il faut ñu def discernement entre dossier politique ak dossier concerne un homme politique ci fan woowu aussi mu gis ne attaque ñuy def magistrat yi parfois c'est pas justifié wala boog bu fekkee c'est justifié am na ci yoo xamante ne peut-être dañu nekk ay attaque personnelle wala attaque partisan est-ce que ci fan woowu jotul kon nit ñi mën a harmoniser parce que yoon yaakaar naa science la boo xamante ne mu ngi dox te bu doxee rendre ko au nom du war naa mën a facile bi nga xam ne en retour dañ wax ne sax euh, la chose jugée amatul commentaire boo xam ne war na ko cee mën a def est ce que côté boobu amul aussi euh, de doo côté kon discernement boo xamante ne ku nekk war na ko def. waaw man dama yaakaar ne def politique warul tere intellectuel te ngoram. loolu mooy lan soo amee koo faral ñu wala dëgg nangu. bu ñu critiqué mën nga bañ a nangu critique bi yëpp mm-hmm. mais jàppal ni am na loo xam ne xëy na dëgg la mm-hmm. ndax jógewul ci fenn rek je répète que problème bu indépendance magistrature am na ay magistrats yu koy jooy ci seen bopp mm-hmm. magistrats yi ñoom sa bopp wax nañ ko yeneen yoo xam ne ñu société civile wax nañ ko plateforme bu génnoon dafa mel ni sax euh, deux jours après la réponse bi ñëw. waaw ñu wax ne indépendance de la justice. mais loolu ñoom ñoom dañoo euh, euh, rado yàgg na ko wax rado du opposant waaw kon rado day fen forum civil day fen man damay fen keneen ak keneen day fen ñoom ñoo wax dëgg est-ce que loolu mën na ne attitude boobu baaxul. ton intellectuel da ngay objectif li ngeen wax ni je ne suis pas d'accord waaye. daañu fexe ba rectifier lii ndax la chose n'est pas parfaite man pour man loolu may wax nit mais li ñu waxee c'est pas vrai dañuy amalgam loolu vraiment xaw ma dañuy déglu xam nañ dafa am ay faits yu grave yoo xam ni am na ma jox la benn exemple lu ñuy jiiñ Khalifa Sall yàgg na ko def te kenn waxul du tey de bu ñu ko jàppee na ko danga joxe ceeb xaw ma njugub yàgg na ko def bu ñu koy def ci bu muy ànd ak Macky Sall ak Tanor kenn waxul bu mu fippoo génn nag ci la ñu indi boobu au même moment que Ndeyli Moussa Sy di maire de parcelle ne alal bi di jiiñ Khalifa Sall waa présence lekk nañ ci climat ñëpp dégg est-ce que dégg nga juge bi woo ko na ko lu tax nga wax loolu ak foo ko jëlee parce que témoin na bu ñuy jiiñ Khalifa Sall Pape du taxaw ne man nii laa doxalee est-ce que dégg nga juge bi woo ko ne ko kaay waaw loolu nag c'est des faits yoo xam ne c'est kenn mënu ko kenn mënu ko passer sous silence kenn waxul li magistrat mënul lu ñuy wax may leen Ablaye waxoon mais indépendant ku leen ko jox sax du jël am na ngeen xam sax bëgguma ko répéter ci plateau parce que dafa ñaaw te moo ko wax ay magistrat yoo xam ne moo leen nommé kon quand tu nies l'évidence naan c'est pas vrai magistrat yi vraiment c'est pas c'est pas ça hmm. waxal peut-être ni vraiment ça exagère peut-être hmm. wala tout n'est pas vrai mais pour nga wax ni les magistrats sont bien ils sont indépendants loolu boo ko waxee Sénégalais yi hmm. dañuy xaw a jaaxle dañuy xaw a jaaxle te réforme yi ñu ci digg woon itam daa mel demul dans le sens de waaw mais président wax na ni justice pour tous waaw wax nañ ko ne yow jëndal sa loxo ci conseil supérieur de la magistrature mu ne moo bañ lu tax njiitu réew nga yow mën nañ la a yow gënal fa sa loxo nga ne yaa bañ loolu la dafa xaw dafa xaw a tey xel xam nga bu ñuy wax comme il a dit nous sommes dans un débat d'intellectuel xëy na sax man am naa fu ma féete waaye dama ko fa fësal parce que débat intellectuel débat intellectuel nag il faut ñu nangu ni am na problème xëy na buñ ko waxee rafetul xëy na buñ ko wax di ngàññi magistrat loolu dëgg la hmm. mais il faut ñu te it nañu jóg pour régler ko naka parce que pour man débat intense dépassé xam nga luy débat bi léegi. Mhm. lu tax magistrat bi yoon jox ko indépendance te jëlu ko. Mhm. mun naa la fi wax ay cas yu bare bare bare bare bare bare yoo xam ni mhm. ay dirigé d'origine def dañ ko corps de contrôle wax ko dara fekk lañ ci. ay na fi. ana mbay Prodac. corps de contrôle boobu ñu fa ne ñu ko ñu ko wax Macky Sall moo leen di fay du opposant kenn wax ko daa ana kudd of nag wax na ko depuis longtemps faale wu sax mu dem ñoom di di conseil ay sudur waaw pourquoi nag chaque fois bu ñu jàppee homme politique day doon homme politique bu opposition hmm. est-ce que APR ay wàllu ñoo fa ne opposition sàcc ñoo fa ne loolu ko koo ko wax mu gëm ko tey ñu bëri ñu nekk APR tey PDS lañ jóge hmm. loolu la ñuy wax hmm. kenn waxul compétent juge de kenn waxul juge bi mënul waxuñu loolu dañu ne dossier yuy doxal nii saa yu mais nañ la wax benn dossier boo xam ne xaw na laal politique te opposition gagné ko depuis 2012 dañu ko wax amul. comptabilité bi yëpp côté opposition. toujours d' accord. y compris ñi ñoo xam ne corps de contrôle régulièrement payé ñoo wax ni fii am na problème mhm. ñu tëx ci loolu. waxuñ ci woowuñu kenn waxuñ ci daara daara daara ay déclaration yu garaaw yoo xam ne homme d'État def nañ ko daara moo tax ñëpp di wax société civile wax na ko. Mhm. daañu ñëw après ci yenn cas yi parrainage benn cas la. Mhm. ci ñëwaat léegi sax boobu yaatal ko Maître Moussa Bocar Thiam parce que foofu euh, interférence la ñu wax toujours dañuy wax synchronisation des pouvoirs yoo xam ne day dal xel mais toujours dañuy wax rek ne am na interférence yu exécutif da ngay dégg ñu ne euh, dinañ libéré diw wala dinañ amnistier diw wala dinañu tëj diw ci fan woo vraiment est-ce que la séparation des pouvoirs aussi posé problème nit war ko mën a gis ne am na lu ñu laaj ci ay réforme waaw xam nga euh, sànq dama sama première intervention dama ne Sénégalais foo wax leen. foog ñu wax leen euh, lu leer c'est-à-dire que foog ñu pour débat débat mën a mën a mën a intéressant il faut ñu xam lan la gars lan la gars yi di souvent ñi ñi nga ñoom régime bi yooyu lan la ñu entendre par justice indépendante xam nga saa yi ñu koo xamante ne opposition la nekk wala yooyu ñu ne la justice n'est pas indépendante. parce que ku bu ñu waree amul kenn koo xam ne condamné ko. kii ñu ne doon pistolet bal pistolet kenn hmm? ko ñu bu ñu waree ah. poursuivre kenn poursuivre ñu ko ñu ne justice bi indépendante bu ñu kon bu ñu jugé politicien boo xamante ne opposant la nekk condamné ko ñu ne justice bi indépendante wul. Hmm. ku saaga régime bi. Euh, ñu poursuivre ko dans le cadre des domaines des des réseaux sociaux yooyu ñu poursuivre ko tëj ko ñu ne. kii la justice n'est pas indépendante après dañ ci dañ ci dañ ci toftal di teg parce que baax déglu ma hmm. sénégalais déglu ma bu baax bu baax souvent bu ñu ko nee opposant rek dañ naan dëkk justice amul Sénégal amul amul justice la justice n'est pas indépendante mais ça ils sont à la solde du régime bu fekkee après ñu yokk ci ne may saay seen bopp kii sax euh, seen wax nañ ko UMS seen bopp sax wax nañ wax nañ ko. su su su ñeneen ñi démissionné nañ ne gis nañ ko démissionné ak mais foofu foofu nag la wax di nekk parce que c'est pas la même c'est chose. Mhm. UMS dafa war a gën a leeral mbir mi. UMS lu mu wax ak ñi li ñuy wax ça n'a rien à voir. UMS ñoom li ñu wax. UMS dafa damay dafa ne am nga justice dafa am justice c'est large dafa am juge justice au sens athée yeeg tribunal sol sa robe di atte nit loolu justice lañ ko tuddee am na justice boo xam ne c'est une administration judiciaire magistrat yi ay fonctionnaires lañ du ñu ay personnes privées nekku nekkuñ dans dans dans dans des sociétés privées. ay fonctionnaire état Sénégal lañ donc yaa ngi am woowee administration judiciaire ak lu ñu woowee carrément la justice comme ni ñu koy ni ñu ñuy déggee mooy atte bi. mais ñoom boo leen defoo da ngay naan côté bi yëpp moo yëpp am problème non ñoom dañoo ne. Hmm. côté administration judiciaire bi. comme administration dafa am autorité bu nekk seen bu nekk seen comme mooy ministre de la justice mooy autorité administrative bu gère seen carrière seen congé maladie seen seen seen. conseil supérieur de la magistrature bi ñu wax ne pour président di ci génn. bokkoon na rek. Mhm. soo déggee UMS naan Sénégal euh, justice bi euh, indépendante wul. wala wala a des éléments yi perm yu dul yombal bi loolu la wax a des éléments yoo xamante ne ay administration administration judiciaire nu mu mu tëddee du yombal indépendance magistrat parce euh, seen carrière seen avancement seen congé seen euh, affectation loolu administration bi mu ngi da ci am loxo. te loolu promesse la woon pour ñu réformer. ba mu mën cee génn waaw xam nga ñu waxee waxuñu nañ benn benn opposant condamné nañ ko donc justice n'est pas indépendante c'est pas ça du tout du loolu. non mais euh, ça n'a rien euh, dafa wax ne moom gis na ne. Téliko lu mu wax. voilà te juste Téliko. dem nee na àtte bi ñu àtte woon sax moom àndu ci. gis na ay preuve yoo xamante ne wane wuñ ne ko waroon nañ ko pour na ko naan. non man gisuma benn magistrat musuma gis benn magistrat dem boobu si boppam di wax est ce que mus na génn télé bi ne man dossier tel nangam. bu mhm. ma ko àtte nii laa ko àttee parce que euh, état bi dafa teg ci man loxo. Ah, wala wala je subis des pressions. musu leen gis benn man. Aliou Ndao daw Ndaw Aliou Ndaw wax na ne ah, dañu tegoon ci moom pression. je mets un défi je mets yéen yéen journalistes yi wala ñu toog ci plateau bi est-ce que mos nga gis bu ne dossier tel bu ma yor sama sama kaw table attewu ma ko nii parce que j'ai subi la pression état moo ma atté ko nii. Alioune wax na ko ah, Alioune Ndao ah, bu moom wax na ne moom il a subi de pression moom wax na ko. procureur magistral non subi à hiérarchie mm. wax wax naa yow da ngay poursuivre état bi day poursuivre ñenn ñi la ñuy poursuivre ñi. Mm. jigéen ñi nekk APR ñi nekk nguur bi quel même quel que soit les rapports indi dañ kenn du leen poursuivre lu ko expliquer. je vais expliquer cela. Mhm. pour expliquer le diable ah wala di jéem di wax loo xamante ne neex na nguur yi wala non je suis pas là on est pas mhm. des intellectuels dañuy wax dañuy wax dëgg la ñuy wax suñu biir. Mhm. ñëpp d' accord nañ te ñu toog fii ay juriste d' accord nañ que suñu système judiciaire may na procureur de la République ñu woowee opportunité des poursuite on s' est écrit noir sur blanc sur notre code de procédure pénale cest à bu ko neex mu topp Moussa Bokar bu ko neex mu topp Mademba loolu ñun ñoo ko voté assemblée nationale def ko suñu suñu texte yi depuis 1960 ba léegi kenn mësu ko changé kenn mësu ko changé donc loolu ñuy loolu moo am si texte yi que ñuy wax il était ministre ah. n'a rien fait pour changer n'a pour le changer ñi ñuy wax yëpp ñi ñu amoon na fi yàgg na fi am depuis 1960 kenn mësu ko changé donc suñu texte yi tey moo may procureur doole boobu mooy mooy mooy apprécier opportunité de poursuivre wala dana wala dana pas poursuivre. je ne suis pas d'accord président bu ko nee poursuivre maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. mais moom léegi bu fekkee am na et puis il faut pas ñu il faut Sénégal yi dëgg aussi. mais moom ni muy autosaisiroo ci côté bële est-ce que mënu autosaisiroo noonu ah, ci beneen côté bi. maa ngi ñëw bu ñu wax ne waxu rapport yi naan ñii dañu topp rapport dafa accablé ñu toppale mais rapport là mais mais doon doon na neex les rapports soit soit soit des rapports publics ci la doon gën a leer parce que le rapport sax parce que euh, IGE def na rapport wala na rapport épingle épingle la que forcément dañu war a poursuivre non c'est pas la vérité parce que ñoom dañu def ay recommandations yenn ñi c'est des fautes de gestion ils disent carrément que da nga war a changer lii jox la ay recommandations di nga war a changer war a changer si j'estime que les faits assez graves et que des détournements sont manifestes wala les faits sont d'une gravité telle bu boobaa nag il faut recommander qu'il y ait des poursuites d'accord maintenant dossier bu ñu fi indi technique kii on recommande des poursuites contre quelqu'un que ko ko. parce que dañu wax ne célérité bi muy àndal fële ak fu ñu qualifié toujours grave daa mel ni benn boor la. Prodac non non Prodac dañ ne woon vingt neuf a pas de poursuites qui sont prévues. Hmm. rapport Prodac bindul fenn. il faut poursuivre le ministre Mame Mbaye Niang amul. suñu bind nañu war a poursuivre amul. Ah, ah, c'est clair c'est clair daanaka rapport defal seen bopp non xam nga dañoo dañoo dañoo waxante dëgg rek quoi dañoo dëgg dëgg la ñu bëgg kon yow yëpp nangu amul benn rapport bu naan moom pour moom justice bi tout va bien non waxuma loolu waxuma loolu wax loolu parce que waxuma waxuma loolu yan problème nga ci gis yoo xam ne bëggoon nga vraiment ñu teggi ko waaw justement mooy côté côté ñuy woy administration judiciaire hmm. ñu woy administration judiciaire mooy lan mooy bu fekkee administra euh, état bi mooy ministre de la justice par exemple dafa am euh, avis wala possibilité ci carrière magistrat bi loolu difficulté la. da nga bëggoon moom la ñu dépendre ci parquet. effectivement léegi bon hmm. y' a y' a y' a un débat. parce que bi dindee ci waaw jóge ci ministère parce que Sénégal partout mooy France mooy suñu référence en général en matière de droit. Hmm. loolu moo fa am. loolu moo am partout dans le monde laa la wax loolu moo fa am. loolu moo fa am. c'est pourquoi on crée magistrat assis et des magistrats debout. Hmm. magistrat assis c'est des magistrats yoo xamante ne on leur donne une certaine garantie en principe kenn mënu leen. changé loo seen seen seen ay seen ay poste mais des magistrats dignes léegi mhm. bu fekkee léegi admi euh, exécutif bi dafa am influence si seen carrière si seen avancement si seen yooyu loolu lay waa loolu la ñuy wax finalement loolu difficulté la. Mhm. parce que mais mhm. mais yu ay mes def ay magistrats seen bopp def. pour que ñoom seen bopp ñu yor seen seen seen carrière seen carrière bopp ñu gérer ko seen bopp. wala sax ñu dindi sax parce que ceux qui proposent la réforme du conseil supérieur de la magistrature mhm. dañuy proposer mhm. xam nga conseil supérieur de la cour suprême le premier président mhm. de la cour d'appel yooyu yëpp membre du conseil supérieur de la magistrature mais xaar maa ngi ñëw administration bi mais nit ñi ci li mu àtte loolu moo leen gën a jaaxal parce que moom mosuñu ngàññi sax loolu c'est c'est technique dafa concerne le la corporation mais li ñuy remettre peuple bi nga xam ne ñoom la ñuy àtte ah. justice ak justicier li ma que dafa dafa am suba lu tax lu tax mel nii tey système lu mel nii hmm. lu tax mel nii ba fu mu jógee parce que dañuy éviter am na daal passe dañu appelle le gouvernement des juges bu fekkee da nga bàyyi juges yi tous les pouvoirs tous les laa wax ñoom équilibre rek lañ laaj de waxuñu ñu bàyyi leen donc là on arrive à ce qu'on appelle le gouvernement gouvernement des juges. Mhm. alors que la souveraineté populaire souveraineté bi. Mhm. ñun deux personnes de deux kuréel lañ ko jox. Mhm. benn bi c'est le président de la République qui est élu au suffrage universel direct. Sénégalais ñooy fal seen président. d'accord comme euh, dans une présidentielle moom moom mooy concentre tous les pouvoirs. Sénégalais ñooy fal seen ay députés. donc foofu la pouvoir bi war a concentré wu et non. sur le sur la justice. d'accord mm. autorité judiciaire la wax. Mm-hmm. trois pouvoirs la kay judiciaire législatif exécutif la xam. on parle de autorité judiciaire judiciaire judiciaire administration la. dañ nag seen autorité nag dafa am yoo xamante ne la ci yi mooy tax ñoom duñ am indépendance bi bëgg maanaam conseil supérieur de la magistrature boobu ñu wax. bëggoon nañu réformer ko président Macky tey. Mm-hmm. opposant récusé woon na Cheikh Tidiane Sy mais tey gis nañ ne actuellement nit ñi ñu ngi wax ne li ñu àtte actuellement doyu leen te bëggoon nañu ñu def réforme réforme yu mooy lu tax nekkul priorité ci seen ah, régime mais dans dans notre suñu schéma judiciaire bu ñu la àttee bu ñu la àttee tribunal d' accord mais prévoir nañ système pour nga def appel sauf ci CREI bi nga xam ne àtte wat la mhm. sauf CREI sauf CREI ak nee wax nañ sax ci CREI c'est notre débat CREI c'est notre débat mhm. mhm. parce que CREI tout n'est pas parfait dans la dans la CREI. Mm-hmm. la preuve la moo tax à Monaco parce que CREI système CREI on estime que c'est contraire à la convention européenne des droits de l'homme ah, on estime mooy nangu noonu heureusement ah, on estime que mm-hmm. système parce que euh, enrichissement euh, mm-hmm. illicite amul dans le droit pénal français amul français yi xamuñu loolu te en poursuivre ci dil boo xam amul man aussi dañoo xam ne base légale boobu en France am na Sénégal. taxaw ko ne France mooy Sénégal mais justement. dañ waxoon war nañ mën a àtte sax yu mel noonu sans pour autant ñu dëkkalaat kër euh, yi nga xam ne dafa répondre ak ak yelleefu. je suis d'accord parce que kër yi dafa am benn benn difficulté bu mag bu ci nekk. Mhm. mooy fekk ñu ne la bon immeuble bi Ousmane Sène moom. Mhm. prouvé ko loolu c'est difficulté la. Mhm. Euh, c'est une difficulté. amul recours amul difficulté amul recours amul. c'est une difficulté Karim. waaw loolu loolu c'est côté côté Khalifa aussi keroog wax nañu président Mamadou Badio Camara ne ko. Mm-hmm. ñu jugé ci délai ay 4 mois yooyu nga xam ne euh, en un temps record ñu jugé ci nit. délai yu court yooyu aussi gars yi dénoncé nee na amul benn problème bu ci nekk man xam nga yow en tant que. non man dama xam lan lan la nit ñi bëgg. Mm. lan la nit ñi bëgg c'est-à-dire que bu justice. accéléré parce que quand même quoi quoi qu'on peut dire bu si accéléré ñu ko ko ko téye sous le coude bi xaar. président ñu ne ah gaaw na trop parce que am na am ñu ne ah kii da chantage. topp gars yi xam nañu bëgg hmm. mais force bu respecté la loi la na que hmm. boo defee appel normalement dans dans nañ hmm. ci ñëwaat léegi parce que yow yaa ngi waxaat côté marché nga xam ne tey wax nga ko loi bi prévoir na ci média classique yi loo xamante ne tey mu ngi appliqué wu encore ci nouveau média yi mais terewul ba léegi am na ci ñoo xamante ne jot nañ leen ci téye am ñoo xamante da ngay toog ba mu yàgg nga ne pourquoi moom mënuñ ko woo wala ñu déglu ko ci loo xamante ne jàllal na ko foofu mu mel ni am na ñaari sénégalais encore yu ñuy attewaat ci nouveau média yi. waaw d' abord avant may wax ci loolu. dama bëgg juste revenir ci. éléments yi maître wax xam nga. Mhm. Euh, sénégalais yi dañu am lu ñuy wax euh, droit à l' information. Mhm. parce que problème yi am yëpp sénégalais bi ni mu koy dundee mooy duñ ko jox information bi bi mu war a jot. tax te dañu ne inscrire nañ ko ci constitution mooy accès à hmm. l' information foo dem ci àdduna bi eh, citoyen wu réew boobu dañuy am droit à l' accès à l' information d' sax maa ngi dégg fan yi ñu ne dañuy créer benn loi sur l' à l' information pour mu nekk obligation parce que hmm. gouvernement booy xool ci àdduna bi réew yu bëri dañuy def li ñuy wax gouvernement ouvert maanaam lu xew rek comme problème yi am ñi koy tudd affaire 94 milliards wax nañ léegi affaire Prodac et cetera hmm. sénégalais yi même rapport yi nga xam ne moom mooy cité loolu sax xëy na yenn journalistes ñoo koy am yenn euh, kër yi mais du ñëpp du nekk information publique boo xam ne mhm. ku ko soxla da ngay dem fi nga ko war a jëlee ñu jox la ko ne mi ngi nii nga gëstu ko xam ko bu fekkente ne dañ ko war a def en langue nationale ñëpp xam ko parce que loolu moom mooy évolution ci ci doxaluñu réew ci wàllu ci wàllu euh, information maintenant pour ñëw ci aspect bi ngay wax nii mhm. euh, parce que am na loo xamante ne que lu bare dañuy gis procureur moom mooy autosaisir par exemple cas wu Ousseynou Diop bi ñuy wax nga ne ki démb lañ ko defar liberté provisoire mhm. Euh, euh, dafa def bés benn commentaire sur internet boo xamante ne que dañ nekk apologie autorisme la defoon euh, dañ autosaisir woo ko téye ko pandant pratiquement quatre ans mais da ngay gis ñeneen ñoo xamante ne que dañuy nekk ci même cadre boobu wax na ko sudul noonu mais daanaka du ñu inquiété wu pourquoi parce que xëy na am na fu ñu fecc am na exemple yu ci bëri yu ci am mhm. ci wàllu internet bi et mais aussi beneen fait bu gën a am importance mhm. mooy parfois dañuy woo nit ci ci ci loo xamante ne que loi bi protège na par exemple dañuy wax le secret des correspondances électroniques. Mhm. démb ak tey rek ñu ngi gis ci médias yi ñu ngi divulguer par exemple benn euh, conversation. privé ndax hmm. mail man Mountaga su ma envoyé Ousmane seen email euh, loolu c'est une conversation électronique protégée par la loi man su fekkente ne que man joxewuma sama autorisation en tant que expéditeur yow en tant que destinataire hmm. joxewuloo sa sa autorisation pour keneen divulguer ko sur sur internet wala ci beneen média dafay wàcc yoon lool loolu c'est c'est y a des sanctions prévues par le code pénal par exemple hmm. donc dangay gis ne euh, euh, parfois doo xam fan la ñuy féete il est vrai que maître wax naka léegi Euh, euh, procureur moom moo am opportunité euh, de poursuivre moom mooy xool ndax jar na mu poursuivre nit wala jarul loolu waa moo ko may te jàpp naa ne war nañ ko mën a régler mm-hmm. mais aussi am na yoo xamante ne dafay flagrant tellement que ñëpp dañ ciy wax mais doo gis yoon def ci sax benn communication def benn conférence de presse expliquer Sénégal lan moo xew ak ban disposition la ciy doxee daal te loolu du question internet rek ndax internet xëy na dafa joxe opportunité ñi mën a partager information bu gën a gaaw mais sénégalais yi même avant internet daan nañu jaar ci média classique yi daan nañu waxtaan seen biir toog seen salon waxtaan donc internet nekkul loo xamante ne que fléau la bu bees boo xam ne dafay dafay gën a euh, euh, régler yenn yenn problème wala dafay gën a créer ay problème c'est juste un canal de communication bu ñëw boo xamante ne que xëy na euh, bu benn information waroon yem ci benn nekk dana jàll ci àdduna bi des millions de personnes wala des milliards de personnes mën nañ ko gis mmh. problème bi foofu la nekk léegi nag li ñu comprendre mooy pourquoi Euh, euh, mu mel ne deux poids deux mesures am na ku ma am ndey ak ku ma amul ndey am na ñoo xam ne lu leen neex mën nañ ko def wax lu leen neex muy autorité bi wala keneen te xëy na kooku dara du ko si fekk alors que am na koo xamante ni que. Euh, voilà hmm. il suffit que mu def benn erreur bu ndaw rek te erreur laa ko mën a jàpp parce que am na dama ko waxoon sànq rek am na yoo xamante ni yu bëri njuumte moo koy waral te loolu nguur gi son rôle son devoir mooy mu gën a fexe ba sénégalais yi kenn ku si nekk nga xam fan nga war a teg sa tànk ak fan war a yem. Hmm. mais fan woo aussi ñu mën a wax ne la liberté aussi d' informer nekkul une liberté aussi d' insulter parce que apparemment am na ci yoo xamante ne y' a une volonté manifeste de nuire boo xam ne. da ci xaw a feeñ. non loolu moom loolu moom kenn du ko cautionné. Hmm. par exemple euh, euh, benn autorité muy autorité religieuse wala autorité euh, étatique amuloo sañ-sañ. Hmm. nga wax ka naka su dul noonu en tout cas Sénégal amuñu coutume boobu. Hmm. peut-être yenn réew yi fu mel ne ay États-Unis wala dara xëy na seen liberté d' expression may na leen loolu. mais aussi. Euh, du caageen ne que euh, da nga da nga nekk si internet bi rek parce que internet du zone de non droit parce que sax mm-hmm. damay dégg juriste yi euh, di di ko waxee ne genre internet ubbeeku na mën naa jël sama téléphone ubbi Facebook wax fa lu ma neex mais internet du zone de non droit non seulement c'est encadré Sénégal dafa am ay loi yoo xamante ne que tey su ma su ma la saagaa par exemple boo mu porté plainte yoon mën na dal sama kaw donc nekk zone de non droit mais aussi Euh, euh, ça veut pas dire que ni dañuy tere nit ki mu exprimer opinion am. c'est-à-dire opinion dafa am voilà hmm. espace liberté la ndax euh, li joxe woon ci média classique yi mooy Euh, xëy na cet citoyen bi am woon possibilité exprimer wu librement mhm. par exemple tey nit bu duggee di duglu rajo Walfadjri mhm. euh, en direct sax bu bu defee naka su noonu xëy na yow miy gérer antenne mën nga ko couper mhm. mais léegi nag kooku bu fekkente nag moom am na opportunité dem dem sur internet def ko fa euh, léegi moom liñ ko war a jàngal mooy mu xam ne fii la war a yem maanaam mën na exprimer opinion librement mën na sax critiquer parce que aussi critique pour pour man baax na sax ci nguur parce que aussi nit ñi bu ñuy critiquer dana permettre ñoom ñu xool lii baaxul permettre waxee ni euh, crée yi wax nañ ne am na côté bu baaxul et cetera liberté d'opinion aussi war na faa am boo xam ne dina permettre mais nag du du raison pour nit ñi def ay mm-hmm. naka sulu noonu mm-hmm. divulguer ay données personnelles jàmbur di saaga autorité yi wala wala autorité religieuse yi et cetera loolu aussi ci yar bi la je pense mm-hmm. que sénégalais yi am ku nekk am nga war am yar boo xamante ne war na la pousser ba yéen it di nga ko jombale sa bopp ba di mhm. ko dugal si internet bi yonte dal sa kaw dinañ ci ñëwaat léegi nga xam ne kon li ci am njëriñ bëri na am na ci loo xam waru ko mën a yàq dinañ ci delluwaat mun taga Cissé Ludovic Rosner ñu gis ne président sax wax na keroog ne euh, la confiance en la justice est un élément essentiel euh, de, de la démocratie est-ce que ci côté boobu confiance boobu aussi amul lu koy suuxat parce que wax nga ko sànq dem wuy du procureur wala nga dem tribunal taxul nga des fa wala ñu tëj la parce que non lieu la ñu wax y' a pas lieu de loolu nit ñi sangu nañ ci beset mais est ce que day baax kon ñu woo boor bi woor bale yow loolu nga doon woote. côté bu nekk nañu lañ bat bu fekkee gisuñ dara nag ñu bàyyi mu dem. mais léegi confiance boobu est ce que amul rupture bu ci am ci diggante bi ci yoo xam ne parce que Moussa Bokar mu wax administration judiciaire mais li gën a jaaxal nit ñi mooy. Euh, procès yi nga xamante ne ñu ngi fay am ak verdict yi nga xam ne ñu ngi koy joxe mm-hmm. te d'habitude buñ ko joxe waan en général depuis 1963 wax na ko indépendance ba léegi en ñu gis ne verdict politique buñ ko joxee dinañ ci mën a def la part des choses li nga xamante ne moo aju ci li tax ñu téye ko ak li nga xam moo ci aju ci politique ñu koy duma est-ce que loolu nekkuñ di ko dund ba léegi. xam nga Sénégalais yi dofuñu. mën nañ juum nag parce que duñu juriste. mais nit ki bu defee lu leer ñu tëj ko kenn du wax. lu dul ndeysaan yërëm leen ko baal leen ko. Mm-hmm. mais exemple yi bari na fi. am na ku ñu fi doon wax awa Koudou Ndiaye parce que tellement duñ ko jiñ dafa flagrant boo mu ngi opposition bi ma duggee affaire lu ma am non lieu kon am na mille exemples kon mën naa ko fi joxe pour wane nii di justice di doxal mais président moo ko wax j'ai mis le sur des dossiers tubaab la làkk na ñii dossiers yaa ngi nii lu tax ñuy jàll ñee ñu man maa teg cours sama si dossiers yi xanaa la xanaa loolu du du français wala dégguñu français boog. il peut aussi lever le coude sur d'autres. alors kenn nettali ko moo ko waxal boppam c'est très clair man président ku ma neex mooy dem prison ndax man maay teg dossier man maay teg coude man maay teggi coude loolu kay leer na xëy nag comme il dit ci benn côté il est euh, moo moo yilif euh, l'administration moo yilif euh, les magistrats du parquet d'accord mais. nit ñi buñ Sénégalais dafa ñoo tamit da wax nii comme ça loo xam ne amul pour lan lu ñëpp wax c'est parce que dafa am moo tax ma loolu lañ ko def lu ñu waral de saa léegi mooy fan la loolu jóge ba ñu saafara ko te wax naa la sànq ne Abdoulaye Wade waxoon na ko ni na affaire bi yéen ñii la pourtant mooy seen chef de en tant que président de la République yéen magistrat yi vous n'êtes pas indépendant ndek te ku leen ko jox sax du ngeen ko jël xas na leen ba ñu ràpp kooku njiitu bu yàq ak ñeneen ak parce que président engagé woon na ay négociations récemment ak euh, justice bi pour conseil supérieur de la magistrature mu génn ci ak yeneen ak yeneen. waaw côté boobu est nit mën na ci am yaakaar ak euh, ni mu wóolu justice ak ni mu sesee ci ñoom ni parce que dafa mel ni euh, séparation de pouvoir président yu bëri dañ koy junj mais. xaw nañ ko ragal daal pour mu. total waaw mais mais justement ragal boobu lu ko waral. Hmm. lu tax yow nanguwoo génn sa loxo ci justice bi. Hmm. bàyyi la ñu juger lu mu leen neexee. loolu hmm. fii. bu ñu euh, delloo gannaaw ci mandaa cinq ans bi mhm. cinq juristes yoo xam ne bokkuñ ci parti politique y compris ñi jàngal Ismaïla Madior Fall mhm. wax nañ wax bu am solo nee ñu lii du droit ruse la maanaam daal naxee mbaay la quoi. diggante avis ak décision. voilà mhm. te loolu feeñ ci parrainage bi xam nga nit day def lu baax day day def pour lu positif objectifu parenage mooy yow mat nga candidat parce que wone nga lim bu takk boo xam ne nit ñi wóolu nañ la wóolu nañ la pour def le président loolu mooy objectif du leneen kon boo ñëwee ne nit ki liste bi nga déposé am na doublon am na lii am na lee mu ne la d'accord waaye man am naa deux cent quatre cent ba sept cent mille parrain hmm. bu dee lu baax nga jublu ne ko génnal bi génnal bi baaxul waa indi ñeneen dugalal dugalal dugalal ba nga ne desituma dara mu ne la ah kon daaneel naa la c'est ça l'esprit positif waaye nga leen di tànd ay piège mais ban sénégalais moom mën a dem jëli parenté du xam ne doublon la parce que côté boobu aussi dañ na am na doublon am na ñoo xamante ne dossier inex inexploitable waaw am na ñoo xamante dañoo ñëw. waaw nekk trop euh, loin de. du minimum requis. waaw côté yooyu yaakaar na aussi teg nañu ay. sart xam nga boo matlewul moom dañ lay dàq loolu leer na. Mm-hmm. mais bu ñu nee lii am na erreur waaye dese nga ay nit yoo xam ne ñu ngi sos toog. Mm-hmm. ndax ñi jàll nii am na ñu ci am à peu près sax soixante dix mille am na ñoo am sept cent mille parrain te jàlluñu. Mm-hmm. dafa war a juste. amuñu dara amuñu parce que dañ ne 700 millions yooyu peut-être am na ay doublons. non loolu am na peut-être euh, ay am na sax motif yoo xamante ne. peut-être waxuñ ko ci détails yu mais. est-ce que côté boobu aussi nit ñi boo amee même mille dañ la ne rek. defal ci cette région yi au moins nga am ci fu nekk deux mille. au minimum ba mu talee soixante trois mille et quelques. est-ce que ci côté boo amee sept cent millions baaxul aussi dañ lay mën a intégrer. wala mais xam nga erreur u citoyen warul daaneel candidat. doublon est-ce que erreur candidat bi la. man ma ne la parrainel ma nekk doublon nga lu ci sama yoon. lan laa ci mën yaa ma yàqal. yow la war a sanctionné du man. loolu waaw wax nañ ko ci xaw ma daal dañ ko appliqué. dañu ne mais dañu ne premier bi daal moom bu ñëwee mais mais est que lu day di élection paie war nañ ko ci jëkkante. yaa njëkk a ñëw yaa jël paie yaay am lii keneen ku du am loolu pour lan. doublon mooy turu Abdou Ndiaye mi ngi sa mi ngi sama liste ñun ñaar ñëpp la ñu war a sanctionné. nañ perte ñàkk hmm. du doublon. Hmm. doublon mooy double hmm. mooy bindu na fii bindu fee nga ne fi mu njëkk a bindu kenn ko sanctionné waaye fu mu ba pare ñoom ñii. Mm-hmm. ñi bindu ñaar yoon ñett yoon am nañu. Mm-hmm. est-ce que da nga procureur woo leen ne leen euh, dañu leen sanctionné kenn waxu ci sax. Mm-hmm. moo tax ma ne la yi mel nii nag mooy tax nit ñi di jotee ci justice. parce que dafa mel ni ay piège la. Eh ah euh, yi doublon la ay ci non régularisé pourquoi non régularisé fu ñu ko bind ci loi bi. ku ne ne mënuñu ko régulariser. kooku mi ngi ay stockam. dese na ay parrain. ne ko bii baaxul dugalal beneen bu fekkee ne yow da nga bëgg bu dee am na parrain bu doy mu jàll bu dee loolu nga bëgg laa wax de mhm. di ko bii baaxul remplacer remplacer ba nga ne desetuma dara mu ne la kon daanu nga d'accord mais leer na ni mhm. xam nga nit ñi dafa ñu ñëpp xam nañu jàll rek mhm. yàlla Madické Niang boo xam ne barki démb la ne président le président yi candidature am na ñu ko yàgg ci langue politique bi am ay député assemblée national pour Sénégal yëpp ñu ne ñoom Diallo ñu ma dégg ñaar moo jàll. ah peut ak euh, xarañam moo ko wala. mooy la wala loolu ñëpp xamoon nañ ko. Mhm. jàllale nañu Karim Wade ak. Euh, ak Khalifa Sall ñoo xam nañ du jëm fenn. ndax ñoom seen pexe ba ñaan ni duñ bokk. parce que ah, dafa leen loi électorale ak constitution bi yàggul ah. yàggul déglu rek yàggul de. Mhm. léegi nga gis ñu ne alors ah, ok ñu bokkul dañu leen dugal rek pour. Euh, naax nit ñi pour nit ñi lëndëm loolu nag mooy tax yaakaar nga ne ñi ñu éliminé kon am na ñoo xam ne neen éliminé te waroon noonu leen éliminé xam nga xaw ma kaaw ñëpp mais am na ñu ma xam seen kaa yoo xam ne mhm. day la kii du électeur il n'est le fichier parce que dañ ne il faut que ñoom ñëpp ñu inscrire waa léegi dafa mel ni nga dem bëri ji nga ne yow yat nga yor man pistolet laa yor mhm. ndax waa affaire yor nañ fichier mhm. yow mii PRS wala Bougane wala Pape Diop yor lan moo lay wóor ki nga dugal mi ngi ci liste loolu kon mooy rupture de légalité de citoyens. tey sa fichier nga dama ko woon kenn. Mhm. keneen jox ko fichier mu dem jël parrain nga ne ko kooku bokkul ci fichier bi mais loolu inégalité la. wala nga ñëw nga ñëw delloo ko mais am na kandaay ko wax fii wane nañ ko télévision sax mu leer nañ mhm. nga dugal carte nit bu am neuf chiffres ñu ne la registré nañ ko parce que chaque chiffre la xanaa ñoom dañoo dof ay nit yu responsable dem uti seen parrain def ci seen moyen nga taxaw ne set chiffres lañ déposé ko déposé si carrément euh, euh, sept chiffres waaw loolu moo tax ñu si si conseil constitutionnel damay wax ni mm. parce que dafa am mauvaise volonté mm. te dafa am ay ay ay espèce su piège te su civil wax na ko fu ngeen sukkandiku pour écarter ay parrain ñun candidats yi xamuñu ko tax wanoon nañ la ko mm. soo ne nee na ñun sax xamuñ ci dara waaye loolu du normal parce que bëree bu amee te arbitre day taxaw ne la eh, Balla Gaye lii mooy règle lii lii lii lii d' accord nga waaw Modou Lo lii lii d' accord nga maanaam ñëpp d' accord ci règle yi ñu bëri ku daan daan nga waaye règle yoo xam ne nga xamuñu ko amul sens. dinañ ci dellu soit léegi. dossier bi kenn xamuñu ko paramétré. Hmm. nga jël ko di ko utiliser di éliminer ay nit hmm. loolu démocratie la. dinañ ci ñëwaat léegi. Oh, Ludovic Rosner maître Moussa Bocar Thiam parce que ci fan woowu gis nañ ne conseil constitutionnel dafa am solo bi nga xam ne li ñu jëm nii yëpp yi nga wax ne échéance yi contexte bi nga doon souligner sànq ñooy arbitre ñoo gis nga tàmbali nañ sax di arbitrer nga xam ne mu ngi ci parrainage buñ paree dem ci loi électorale buñ defee élection ñu ñëw encore arbitrer waat loolu bu amee rupture de confiance bu mel nii est-ce que bokk nga ci am tiitàng vraiment ci wàllu doxalinu yoon bi. waaw euh, peut-être ci que du du débat boobu. non après dañ ciy ñëwaat mais ci côté parrainage ci hmm. euh, ci ci politiciens ah, Sénégal. parce que parrainage déjà bu fàtte déjà conseil constitutionnel surtout c'est conseil bi nekkoon bi tax ba Abdoulaye ba Abdou Diouf perdre pouvoir bi en moo fi ne bi tax Abdoulaye Wade perdre pouvoir bi en moo fi ne. ak yeneen nit donc am yeneen nit. ak yeneen nit yu te pourtant amul lu ñu leen waxul amul lu ñu leen ŋañul. policiers noonu policiers noonu lañ mel cest dire que ñoom bu nga xamee ne situation arrangé wu leen ci institution bi lañ jëm jëm ko décrédibiliser jëm yàq dara inscription institution bi pour sénégalais bañ am benn confiance. ci institution te loolu c'est dangereux. société civile de wax na. loolu c'est hmm. dangereux maa maa ngi ñëw société civile. ñu hmm. hmm. ngi intégré woon sept maa ñëw ci foofu. man comment yi dañoo bëri. maa maa ñëw parrainage bi. xam nga parrainage bi ñu junjee loi bi teg ko coow lu bëri na lool. sans débat. parce que wane nañu débat yi ñëwuñu. bu dee discuter mais bi jaar na sans débat ok mais bu loi bi jàllee lan la wax. nañ toog waxtaan xool les modalités d'application du parrainage ñu xool naka la ñuy appliquer. parrainage ngeen toog ku ne wax sa xalaat ndax lañ koy parce que lu bees la su ñun parrainage de parti politique lu bees la. parce que daa mel ni gars yi dañ tiitoon ku jiitu ci nekk bu leen dem na la dugg mais gars yi hmm? a ñëw non xam gars yi ñëwuñu c'est des réalités Sénégal la ñuy ah. Sénégal yi hmm. fekk nañ fi di yàggul bakki démb la hmm. kaay leen waxtaan autour du ministre de l'intérieur ñu waxtaan les modalités parce que code électoral c'est un code code consensuel élection toog waxtaan yow ba ñoo xam nga foofu ñëwuñu hmm. mais bu ñu tegee règle na mu nekk loi applicable à tous les candidats candidat Macky Sall yow ak candidat yëpp képp ko a képp ko bëgg jël réew mi voilà les règles du parrainage la loi dafa claire de L118 dafa leer parrainage en laaj lañ la entre 0,8 pour cent et 1 pour cent ñëpp xam nañ ko maximum maximum ñu soxla ci yow mooy 1 pour cent léegi boo demee parrainé say 3 millions def sa naan am na naa mille parrains am na am na huissier bu koy bu koy prouver alors que la réalité est tout à fait est, est fausse. Mhm. parce que loolu loolu fu ñu xam ko sanction bi am nii c'est pas le conseil constitutionnel moo sanction moo sanctionné candidat yi malheureux yi ah. du conseil constitutionnel c'est le peuple sénégalais. c'est faux. Mhm. c'est le peuple sénégalais. ni ko bu ko def bu ko nee nga xalaat mais peuple moom moo moo ànduñu ak yow continué wuñu joxuñu la seen cachet pour. nga mën nekk pare. kon Ablaye Ba day fenn Ablaye Ba huissier day fenn de ko. fi yomb ko fi. parce que boo gaañ huissier huissier moo ko mhm. dajal seen parrainage boo ko calculé day day nekk ay vingt cinq millions de personnes yu voté mhm. boo ko ba dajal li ñuy wax mhm. mu nekk ay vingt cinq millions personnes lay nekk parce que ku nekk naan am naa sept cent mille ki naan am naa un million ki naan am naa trois millions ki naan am naa quatre millions yow comme ni Bika bi quoi yow bokkoo ci ñu wax ne ñu gëm ne. Hmm? ñu def doublon comme lu waa ngi fi. pour sanctionner nañ ko ñàkkandoo ñun ñëpp. après ñu dem sanctionner non non non non nañ leeral mbir bi nañ hmm. leeral mbir bi naka lay hmm. demee. parrainage bi dañu lay bu ñu jox dañuy jox sa fiche jox la clé USB. ne la defal sa defal sa soixante cinq mille personnes maximum ci carte ci clé bi. donc sans fichier. électoral le fichier disponible sur internet ci bu tapé internet da da fichier bi disponible. fichier bi le fichier est disponible sur internet. fichier nañu logiciel yi naan am na ñaari fichier ñetti fichier mm. o du nga ñëw foofu léegi ñu ñëw ba ñëw conseil conseil sa sa tur bu jotee nga ñëw dañ lay toog tay toog sa table teg sa ordinateur mm-hmm. conseil membre conseil conseil conseil conseil toog sa wet toog mm-hmm. les les les sages toog euh, société civile toog ñu defal la écran géant comme nii mu jàkkaarloo dugal sa clé mu défilé bu défilé ba pare ñu ne la fii doublon la fii c'est invalidé y a une différence entre doublon et invalidé maa ngi ñëw foofu pourquoi hmm. pourquoi loolu texte dafa ne la texte le texte la loi L 118 hmm. dafa ne su fekkee motul motule woo la laata doon 48 heures pour nga changer les doublons non hmm. ñu dem ci seen stock nee nañ changer les doublons la ñu wax article du code du code électoral loolu la wax ñoom ñëpp nee nañ amoon nañ stock bu weesu sax waaw maa ngi ñëw foofu maa ngi ñëw foofu man bëgg Sénégalais comprendre bu baax système bi ni ñu ko defee parce que ngaañ rek yomb na dañuy dañuy dañuy kii sàcc yooyu dafa yomb mais nañ nañ dem ba ci biir buñ lan mooy doublon mooy dafa dafa ñaar façon doublon moo am ñaar. Hmm. benn bi sa nit ki nag ñu sa liste nekk na beneen liste encore. Hmm. loolu doublon la. nit ko Ousmane Sène aussi mën na bind ñaari yoon. ci biir ci biir fichier bi loolu tamit doublon la. Hmm. yooyu bu amee ñu ne la ah demal indi ñeneen nit nga changé wante su fekkee da nga def du faux bind Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye boo xamante ne xamul fu mu jógee def say numéro def say lépp ñëw déposé xam nga dafa c'est 4L je crois c'est 9 chiffres 4 CEDEAO c'est 17 chiffres nga remplir rek bu la neexee bind 1 2 3 bind chiffre la neex ba mu jeex ba mu jeex ñëw am naa am naa pare te amul dara nit dina fooy noonu ay millions wala ah, dëkk bi dajale ah, ñëw maa ñëw oh, comme ñëw léegi bu fekkee léegi boo nga sa fichier bu xool parce que invalidé c'est de la fraude parce que da def loo xamante ne amul amul da nga dugal carte électeur boo xam ne amul machine da koy rejeté loolu ko conseil constitutionnel moom moom ko joxle sax amu amul ci pouvoir parce que pourquoi mhm. parce que xam la loi la loi maye na juge juge mu doon bu fekkee yaa ngi question technique qui se pose nga adjoindre ay technicien ay ingénieur pour rendre la justice lool moom ñëpp d'accord na ci lool donc le fait ay techniciens nekk foofu di euh, gérer côté informatique bi te parti ba yem candidat yëpp ci yem léegi boo ñëwee nga am nga 700000 kii ñëw ñëw ñëw ñëw ñu ñëw nga am par exemple ay 1000 doublons. Mm-hmm. mais am ay 25000 yoo xam ne ay faux la. te loolu kenn du ko annulé c' est annulé c' est parce que c' est annulé. d' accord parce que fraude la c' est de la fraude. Mm-hmm. bind nga loo xamante ne amul. yow loolu poursuite waroon na ci am wala. pour poursuite c' est prévu pour les euh, doublons. Euh, pour les doublons rek waaw d' accord. parce que li la loi. Mm-hmm. doublons yi mën nga ko changé mais euh, invalide ñu woowee les invalidés. c'est pas régularisable parce que la loi considère que lii c'est des faux ba mu ne Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye wax amul fenn. loolu faux. d'accord moo tax d'accord donc loolu loolu loolu léegi nag dañ la bàyyi nga dem jël beneen beneen beneen Modou Ndiaye ne du Sidi Ndiaye du doon Sidi Ndiaye mais Modou Ndiaye la. indi hmm. Modou Ndiaye dugal dugal. mu nekkaat la sérieuse hmm. kon yow amoo yaakaar ci recours yi ñu dugal ñoom. ban recours. Hmm. la recours le recours n'est même pas prévu. recours mm-hmm. par amul recours. les con les conditions. voilà APR nii la mel. parce que boo xoolee recours ma APR ak yooyu mm-hmm. PS yooyu du loolu qu'est-ce qui se passe ça. yàq rek yoo xam ne waxtaanal. yàq rek c'est une loi qui est là. Mm-hmm. kaay leen waxtaan ñu ñëwu leen. loi bi exécuté la loi applicable au président au candidat Macky Sall. la loi est applicable à tous les candidats. tous les candidats te te dafa leer. parce que ñoom 139 dossiers. balaa maa dem ci Mountaga ñoom nee nañ li ñu bëggoon. ñu poursuivre ñu def du loin parce que sabotage mën na ci am ñu yónni ay nit parce que xeexaan xeexoo xeexoo bi keroog pour maa njëkk a boo demee Koumpentoum jënd jënd fa jënd eh, eh, eh, la presse la presse l'a relaté ah, la ah. presse l'a relaté d'accord xam nga mhm. boo xoolee bu baax boo xoolee ba ci biir biir di xam ne ñi ñu recalé ñii ñu recalé mais ils n'ont pas la confiance des Sénégalais. amul cas bu la amul cas yu yow amul cas yu la ci jaaxal politique boobu amuñu ko. amul cas yu la ci jaaxal par exemple amul amul cas ne par exemple parrainage bi mi koy war a def ci euh, sur le nombre d'élus. ku mel ni Pape Diop nga xam ne mu nga à l'Assemblée ak. mais Pape Diop mais mais mais mais xoolal résultat mais mu mu mu parrainé. ñu ñu ñu recalé yëpp xoolal. li ñu recalé la. maa ngi ñëw 139 mm-hmm. personnes jël dossier ministère de l' intérieur 139 candidats potentiels. d' accord loolu ma loolu mooy réalité bi. Mm-hmm. ñu ne candidat pour parrainage am ñëw ba bu bu bu parrainé ba buntu conseil constitutionnel dellu dellu gannaaw. Mm-hmm. am ñëw indi ay kii ay kii journaux laa jéem a jéem a kii nii bon nii jéem a xam rek jéem a nax journaliste nax population. donc te coow li ah te déposé wuñu <laughs> xam nga donc.

dinañ ci dellu soit léegi c'est que léegi sur les les si suñ ñooñu mm-hmm. les dix neuf sont recalés par le peuple c'est pas par le conseil constitutionnel conseil constitutionnel si moom te mën na rek ñu validé la fiabilité bu ñu tiit daal pur pur bi wax ni moo mm-hmm. ëpp moo ëpp sax ay parrainage que que que le candidat Macky Sall mm-hmm. ay parce que xam nga damay dëgg bi y a un travail sérieux rigoureux boo xamante ne parti politique dañ ko war a def d'accord dinañ ci dellu benn bokk yaakaar loolu lañ def bu ko candidat yi validé loolu dong amul leneen. d'accord dinañ ci ñëwaat ne ñoom ñooy secrétaire général ñoom ñooy représentant des femmes. Hmm. ñoom ñooy trésorier. Hmm. ñoom ñooy représentant des jeunes. Hmm. ñooñu comme comme comme du trois mois rek am xalaat ci côté boobu parce que yéen affaire technologie bi nga xam ne am na ñu koy mbir mi ci la bokk logiciel bi nga xamante ne tiit nañ ko ci yëf yi est-ce que yow euh, tey mën nga ñoo wax li Sénégalais yi di tiit naan à partir d'un logiciel mën nañ cee def lu la neex wala mën nga cee sàcc wala mën nga cee yokk wala nga wàññi est-ce que loolu mën na nekk wala am na lu ko mën a contre contrecarrer ba nga xam ne itam liñ bugg nañ ko ci am. waaw déjà euh, su ma fàttalikoo le 20 avril 2018 mm-hmm. mooy lendemain wu mm-hmm. parce que man informatique laa jàng je suis ingénieur informaticien de formation. Mm-hmm. Euh, ma posé ay questions. genre public daal poser ay questions publiques pour ku ko mën a jël rek muy ministère intérieur wala ku mu ci mënti doon poser ay questions ci nu ñuy maintenant puisque léegi nag bay woy na mbuus voté nañu loi bi jaal na assemblée léegi mise en œuvre mi nu muy demee parce que man inquiétude bi ma amoon mooy comme cent et quelque jëloon nañ seen ay war na kii na euh, war nañ mën a dem bu ñu waree def mise en œuvre nu ñu koy defee après ñu bëri ne boobu bu ñu ci yeggee dinañ ko wax mais lii lañ doon tiit mais donc ce qui veut dire que dañoo raté processus bi dès le départ beneen affaire bi mooy euh, euh, te loolu sax xëy na candidat yëpp laa ci xaw a euh, joxoñ baaraam mooy collecte bi parce que mm. xam nga préparé wuñu candidats yi ak Sénégal yi suffisamment ci wàllu parrainage bien que am na ay spot télé yu jàll et cetera mais xam nga Sénégal dafa mën a maslaa mm-hmm. man bu dee sama xarit nga ñëw ne ma parrainel ma parrainel la maître ñoo nekk sama xarit ne ma pare ne ma pare ne ko man de toute façon dara duma ci fekk. mais liir naa ne que effectivement le procureur il a euh, après la programmation proclamation définitive des résultats il a six mois pour. pour poursuivre pour def poursuite donc man jàpp naa ne war nañ ko mën a def même pour exemple bi rek mais li ci gën a garaaw mooy euh, comme affaire présidentielle la te affaire informatique la ñuy wax Euh, dañoo waroon rendre public wàllu logiciel bi nu muy fonctionner. jamais duñ ko mais parce que même entreprise bi nga xamante ne que wala bu fekkente ne que c'est développé en interne am na ay candidats sax yu ne woon ADIE ADIE def nañu communiqué ne ñoom laalewuñ ci du ñoom. Mhm. donc il fallait que ñu xam ban entreprise moo ko def lan mooy expertise ak logiciel bi nu muy fonctionner beneen affaire bi mooy candidat bu mel ne Amsatou Sow Sidibé dañ na ko euh, candidat à la candidature dañ na ko. sa sa sa sa fichier c'est inexploitable mm. mais ci ci ci loi électorale li ma si jot a lire dañ wax ne dañuy def vérification électronique si surtout conseil constitutionnel laa lire dañu expliquer procédure mm-hmm. vérification dañuy def vérification électronique et au besoin ñu def vérification manuelle mm-hmm. mais bu fekkee yow candidat nga ñëw ne am naa ay parrainage nga jox sa clé USB ñu ubbi ko ne mënuñu ko liir donc am nga possibilité ñu xool sa sa sa sa papier parce que coow li au début dañ ne woon ñun information yi dañ ne woon signature mënuñu ko vérifier mais euh, professeur Issa Sall wax na ci ay yooni yooni yooni yoon yoon ne lii moom mënuñu ko vérifier ñu ne finalement électronique lañ koy vérifier mais man tiitaange bi ma ci am mooy bu ñu jàllee présidentielle yi parce que euh, defoon naa beneen poste ma ne ñaata tonni papier lañ nar a indi pour def parrainage bi mm-hmm. mais en réalité booy xool conseil constitutionnel xool ñu benn yoon papier yi mm-hmm. mais kon parrainage yi di ñëw nga xamante ne que élection locale la nar a nekk surtout mais candidat dañ naan bon de toute façon puisque du ñu vérifier papier yi ñun dañuy def dañuy def parrainage électronique mm-hmm. te boobaa ci le risque d'erreur bi di gën a bare te boobaa aussi Euh, beneen problème bu mun a andi euh, nar a créer mooy affaire doublon yi. Mhm. bon doublon yi comme ni ko maître wax sànq am na effectivement ñaari doublon mooy doublon bu fekkee ñaari candidat ñoo bokk même information. Mhm. wala doublon interne si samay fichier ma am fi deux informations loolu dal na sax euh, candidat Macky Sall hmm. mais loolu pour man négligence la en interne parce que bu hmm. fekkente ne que euh, vérification électronique bala nga yóbbu sa ay fichier war nga mën a xool en interne xool ndax information bi euh, ñaari mandataire wala ñetti mandataire dem nañ ci même parrainage ñuy vérifier ko hmm. loolu candidat yu bare ku mel ne par exemple ay Aïssata Sall Sall dal na ko ci ci d'après information yi mu joxe publiquement donc ngay gis ne affaire parrainage dafa bëri ay problème dafa hmm. bëri ay problème yoo xamante ni que pour man dañoo waroon préparer wu régler yooyu yëpp en avant en amont avant ñuy dem ci applicabilité parce que effectivement léegi bay wey kon yow yaakaaroon délai yi ñoo gàttoon parce que laajoon laajoon na kon formation ñi lay collectel effectivement laajoon na formation non seulement pour waa conseil constitutionnel hmm. mais aussi pour les candidats ñoom aussi nu ñuy jëlee ci information yi même aussi pour le Sénégalais bi nga xamante ne moom mooy war a parrainer comme ni ma waxee ñoom ñu si bare def nañu ay parrainage mais xamuñu sax lan la leen mën a jural parce que cent soixante quatorze mille xaw ma cent soixante dix mille Sénégalais yoo xam ne def parrainer nañu au moins deux fois ñooñu bu yoon dalee seen kaw peut-être

citoyen la est-ce que ñoom la fañ la ñuy la ñuy la ñuy teg ay daal candidat d'après li loi parce que yow bi nga ñëwee boo demee Ourossogui ñu ngay def collègue mhm. euh, kii defal Moussa Bokar mhm. keneen ñëw mu defal ko peut-être moom Moussa Bokar Thiam moom xamul ne pare na ma pare na na Mountaga <laughs> Cissé kooku xamu ci dara voilà yow candidat bi yow yaakaar na waroo nekk mhm. dara mais citoyen bi moo xam ne man pare na naa Moussa Bokar Thiam pare na naa Mountaga Cissé moo tax loi bi ci moom loolu loolu en terme en bu ko ko traduire ci politique mhm. loolu mooy kii ki nga ki kii kooku nga pare ne bu am doublon kooku du nit mhm. kooku kooku àndul ak yow kooku du sa sol sama puus ci moom mhm. c'est la réalité parce que man mu nit pare ne xam ne kii ëllëg bu élection jotee su ma ko ne ma fii daf may votel mais mu wóor nga dem ci nga ñëw ci donc nga ne kon donc nga ne mbir mi nga jënd ko sax mbir mi kon am na doole yemul c'est imputable au mhm. loolu xam nga li gënoon simple comme comme biñu demee ba ci vérification bi dañ def vérification électronique bu ñu ko defoon en amont mhm. day régler problème permettre à tous les candidats ñu accéder à un système électronique parce que maître wax na léegi nekk fichier bi en en réalité euh, lu nekk en ligne c'est pas c'est pas le fichier c'est une base de données mm-hmm. du fichier c'est-à-dire que ni xam nga le fichier mooy document boo xam ne boo ko ubbee dañuy ci gis l'ensemble des électeurs man loolu sax man d'accorduma mm-hmm. ak yenn parti yi naan dañ ko war a rendre public mm-hmm. parce que samay données personnelles mi ngi say données personnelles mi mais war nañu mettre un système boo xam ne tey man su ma xasee ba pare ne benn candidat bu ko bu bu bu ko bu ko beneen kàndaar dugalee ci système bi. dana dana def benn benn. Euh, warning benn benn signal ne ko. Mountaga parrainé na mën na sax bañ a xam kan ban candidat la parrainé mais Mountaga il a déjà fait son parrainage. Mhm. kii mënut loo ko jël. comme carte crédit bokkee ñu ne déjà utilisé. voilà parce que objectif parrainage mooy lan mooy. ñu fexe ba yow candidat à la candidature bi nga indi suffisamment de signature mais du question que ni da ngay indi sept cent mille wala un million cinq mille même bu fekkoonte ne dañ ne cinquante mille la wala mm-hmm. cinquante cinq mille yow tu feras tout balaa ngay ñëw mu leer na ne cinquante cinq mille yi amul doublon mm-hmm. amul benn erreur mm-hmm. te aussi ñu permettre leen ñu mën a def correction parce que en matière informatique aussi man damay jàngale informatique fu mel ne ceci par exemple et cetera mais da ngay gis ne erreur informatique mënul ñàkk nga jox candidat bi la possibilité même séance tenante temps fi ñu toog nii mhm. bu amee yenn erreur yi moom mu mën a puiser parce que objectif parrainage du question que ne que cinquante cinq mille nga ma jox euh, alors que man denc naa en stock yeneen cinquante cinq mille mais soxla ma ko lii nga ma jox su fekkee trente mille yi baaxul dañ koy rejeté war nañ leen permettre ñu mën a indi di indi di mottali di mottali ba indi parrainage am yëpp bu fekkente nag matalul ñu ne ko aar ah, yow nag finalement mataluloo laa dañ lay rejeté mais tant que yaa ngi am ci sa stock des parrains yoo xamante ne que nekkuñu ay doublons waroon nañ permettre at ces candidats là ñu mën a bokk ci jeu bi. waaw mën a mën a xoolaat aussi version papier bi dans des cas critiques yoo xam ne. voilà bu fekkee nag am nañ problème nag pour vérifier euh, authenticité information bi ñu ne bon numéro 1 2 3 4 5 6 7 numéro électeur bi gisuñu ko indil nañu. version papier version papier bi. candidat hmm. bi indi version papier bi ne kii nii la tudd signature mi ngi nii. ñu xam ne kon information bi baax na xëy na erreur de saisir la parce que hmm. ay nit ñoo ko doon saisir. Hmm. te xam nga erreur man erreur manuelle dafay faral di am ci informatique. loolu kese voilà juste Ousmane balaa ngaa. dem ci Ousmane balaa ko comme moom informaticien la. moom est-ce que ñu dëggal que. Euh, le fichier bi ñu wax naa ñeenti fichier cinquante fichier bi ngi Sénégal fichier bi c'est disponible sur le en ligne. tey tey pan tey boo bëggee tey Ousmane Sène boo bëggee tey xam Ousmane Sène fooy vote sa numéro carte d'électeur fooy fooy fooy yëpp boo sa sa yi parce que boo tàmmee Ousmane Sène la wax fi ngay voté pas global voilà mm-hmm. pas global mm-hmm. mais tey su ma bëggee vérifier man fan laay voté ak sama sama sama yi su ma ko dugalee dafay génn mais léegi am nañu am loolu ba pare biñ paree ne biñ moom bi ñu demee affaire bi def leen rejeté. Modou Fall ingénieur informatique laa dégg mu ne en ligne mënoon nañ def même chose pour le parrainage. nga xam ne tey man su ma duggee si système bi. en tant que candidat mhm. su ma su ma jëlee récupérer euh, information Mountaga su ma ko dogalee ci système bi dana wax ne ma Mountaga il a déjà fait son parrainage oui ou non s'il l'a pas encore fait ma dem démarché ko su ko defee ma xam ne kii hmm? féete na boppam mooy defal loolu c'est facile à wax nii par exemple fekk nga mën a vérifier say doublon loolu nga bëgg xool vérifier kan moo déposé kan moo déposé wul kan est-ce que kan est-ce que am na seen seen nit yi hmm. bind nañ feneen hmm. loolu mënoo ko xam tan que déposé ko déposé ko au conseil constitutionnel. non non non wax ne en amont loolu wax ne en amont defoon ko ba nga xam ne duñ ko xam balaa ngaa dem. nekk parce sa pare nga déposé au conseil constitutionnel ay date bien fixe. Mm, mm, mm. nga déposé mais boo déposé ba pare nag léegi. si les conseils constitutionnels di vérifier loolu. piège la waay mais yow fekk suñ phase su parrainage pendant deux mois wala trois mois. mais du mën xam kii kii dugg na rek waaye dugg na fële wala kii ba mënoo ko xam. d' accord conseil loolu c' conseil constitutionnel. Hmm. la muy rôle d' perdu quatre mille et quelques personnes. cinéma la ah, def waay parce boobu waaw parce que dañ wax euh, de quelques. ñeneen ñi perdre nañ de voix. parce que nit ñi ne ñoom gisuñ ne loi bi dafa nekk loi pour segg. candidat yi nga xamante ne ñoo yéeyoo dem wala ñoo am kàttan wala ñoom la Sénégal yi gëm mais dañ gis ne dañ ko defoon pour mën a xam ni ñuy jàkkaarlool ak mun a tànn ñi ñuy jàkkaarlool est ce que yow tiitaanga boobu mu ngi ci yow yow li def ko xam nga man li ma la wax leer na dama ni bu bëree amee mbër yëpp nañ leen wax lii mooy sart yi hmm. d' accord ngeen waaw ku d' accordul ñu ne bokk hmm. ñu bëree te xam sart bu ñuy bëree mais ñii dañ doon bëre waxuñ leen sart ñu nangoo bëre ñoom itam. dañ nangu pare na sax mais mënuñu ci dara parce que ñoom dañ ko forcer léegi pare na mooy lan mooy jël nit dugal ko sa fiche parrainage ka ngay dugal na doon électeur am déet monsieur l'informaticien mm-hmm. na doon électeur électeur waaw léegi man nii di Pape Diop wala Bougane wala keneen nan lay xam ni yow mi électeur wala doo électeur te yor ba fichier waaye loolu xanaa loolu bo du saa yoon loolu bon sens la. moo jur kii double xam nga ñuy wax ni le fichier dañu ko jox nit ñi et cetera à 15 jours. dafa mm. fekk boobu amul parrainage. boobu voté gu ñu loi parrainage. parrainage bu ñëwee nga ne ko demal nga uti parrain. joxaale ko fu mu muy ko ba xam ne kii parrain bu baax la. yaa ngi dégg. disponible sur internet. waaye non c' clair man su ma ñëwee ci yoon Ousmane parrain na ma. règle du jeu yi pas changé nañ il fallait immédiatement. mu compléter ci mais mais mu lu wax la am na de. Mm-hmm. parrainage mooy jël électeur dugal ko sa liste loo xam ne électeur nga électeur te xam te yoroo fichier électoral. non am nga fichier bi am nga am nga carte électeur am nga fichier bi si internet ñoom lañ ko rejeté leen. am na si internet. am na candidat boo xam ne taxaw na ci réseaux sociaux yii. nee neen rejeté nañ ma sama carte ngi nii maa ngi nii taxaw sama numéro téléphone ngi nii woo leen ma. woo leen dig ma ñëw sama kër maa ngi nii taxaw sax sama carte rejeté nañ ma rejeté nañ ma du benn du ñaar. xam nga loolu dafa rafetul ci réew. parce que moo tax ma ne la li mu wax nii sa clair nee na. Mhm. suñu amoon bon volonté. suñu bëggoon candidat bu am parrain ñu fexe ba boo matee chiffre boobu ñu bàyyi la nga jàll. parce que am nga conférence sénégalais dañuy indi logiciel boo xam ni koo dugal ak ko muntu doon ci ci candidat yi koo dugal te kàttam baaxul mu bañ machine bi bañ. Hmm. koo dugal te am na mu bañ. Hmm. loolu mën na ne wala mënul ne. mën na ne pourquoi defuñu ko pourquoi ñu xaar ba ñu ñëw ñaan conseil constitutionnel pare indi indi fichier boo xam ni fu ñu ko parametre fekkeewuñ ko mbër yaa ngi bëri te xamuñu charte yi lan la dañu waroon jël fichier bi ne eh yéen candidat yi fichier baa ngi nii ci lii lañ ci lii ngeen di gagné wala ci lii ngeen di daanu nii la kooku jël ko ne ah kon naa def attention parce que am na lii am na lii am na lii am na lee waaye kenn waxu leen ko mm-hmm. soo si ne ñun ñu ngeen wopp observateur sax fichier bi xamuñu nu mu demee waaye lu leer nañ ngay nekk di weddi nag mais nit yaa ngi lay seetaan. non non Ousmane. Ousmane xam nga man li ma la wax c'est mm-hmm. clair. Mm-hmm. maa ngi la ko waxat une dernière fois. parrainé mooy jël nit kuy électeur dugal ko ci sa parrainage liste liste parrainage mais na fekk nga xam ne kii électeur wala du électeur. d'accord te conséquence yi li mu wax parce que. Mm-hmm. ku am carte photocopier ko wane ko internet nga ne ko doo électeur. kon da nga war a yow da war a yónnee dikk ci moom. amul mm-hmm. ndax loolu mooy. am na keneen ku dul daaf ku defar carte électeur Sénégal. non c'est boobu waaw. xam nga par préparé ko mais man mun naa la yónnee bu émission bi jeexee ay turu nit nga jël sa numéro téléphone yónnee nga ne ko yónnee ma sa carte d'identité WhatsApp. bu yónnee la ko ne électeur laa waaye kon fan la jëlee carte d'identité. Mm-hmm. yow yaakaar nga ni de gens responsables comme Pape Diop. Mm-hmm. comme Aïssata Tall Sall comme Bougane ko jox conseil constitutionnel li Mhm. ñi matlewu déposé wuñu de ñi matlewu déposé wuñu cent trente neuf la woon ñi matlewu déposé wuñu de mais ñi matle ñoo déposé doublon nag mhm. nit kuy def parrainage joxoo ko benn instrument pour ma xam ne kii du wala doublon même boo ko ne rectifiel sax mu dem indi keneen du ma xam ne doublon wala doublon mhm. ki nga ne du électeur lan na xam ne électeur wala du électeur te yoroo fichier lu muy def ah, kon loolu nag mooy pied moo tax ma ne la conseil constitutionnel ñoom lu ñu manqué mooy bonne volonté maanaam doo sentiroo ni ñoom dañu bëgg dimbali nit ñi pour bu ñu matee ñu jàll. man hmm. foofu lay waxee. kon léegi ci loolu def lu ñu def mooy hmm. teg ay piège pour ñu ci daañu ci. Hmm. ñu jàll nañ ni jàll pour sa pour tas opposition. kon waaye nag ñu ngi yee fitna. parce que am na ñu wax ne bu tàkkee kenn xamul fan la yem. am ñu wax ne comme nii la doxee. ñoom dañoo bëgg a boycotté est-ce que yow ànd nga ci. boycott boobu am na ñu wax ne comme yëf yi leerut criblage bi. waaye xam nga booy bokk da ngay boycotté ci kanam góor koo xam ne bañul dara nga ne da ngay boycotté day day dem falu ji hmm. <laughs> kon ngay boycotté moom ko xam ne boycotté yii affaire bi garaaw na man bëgguma opinion internationale xam ne dañuy boycotté kon nañu rek dañuy woo gaa waxtaan hmm. waaye xam nga ne booy boycotté APR boo ne dañuy dem falu koo xam ne day manipuler juge <laughs> uh-huh. koo xam ne day tëj kaso pour ñu bañ a bokk élection hmm. koo xam ne les les plus grands opposants tëj leen bokkuñu élection ku taxaw ne am kooku booy boycotté day kontaan. Hmm, d'accord. <laughs> Moussa man maa lay question. Hmm. maa lay posé question bu simple. bisimilah. parrainage coow lu coow lu yëpp ñi ñi ñi ñi bokkul ci parenage ñi ñu génn ñi ñi dàq wala xamul ñu wax ne ñi ñi ñu. am échec ñi invalidé kan si ñoom moo mën a élection présidentielle. wax ma kenn wax ma kenn rek. Macky mooy gagné a présidentielle. non moom loolu de. loolu loolu moom loolu moom kenn kenn ko. Ah. Ah, parce que liggéey na ko. liggéey na ko mais ñi ñu invalidé hmm. kan si ñoom. moo mën a gagné. élection présidentielle bi mais attention yow. fu ñu voté xamoo ko yàlla rek a xam. non amul léegi man man xam ma sama analyse moo ma naxoon mais man gisuma woon Macky muy ñëw. te dafa yegg si ba am 65 pour cent. fan la ko def. non est-ce loolu aussi. parce que avait 26 pour cent au premier ah ko woon. avant waaw faisait partie des des des des avant ah, waaw des candidats sérieux. waaw des candidats sérieux. loolu loolu dem battre campagne ñëw mais ñu fi invalidé yëpp laa wax mais yow ah, lépp keroog booba da nga yaakaar ne eh, yéen yéen a jël pouvoir bi eh, eh, Benno ak Tanor ñooy ñooy réew mi. wax. man 2012 yaakaaroon ne kenn mënta jàll ci kanamu Ousmane Tanor Dieng. pourtant dafa mujj perdre. mais de la même parce que am nga agenda mais yàlla aussi am na agenda ak peuple bi am agenda. Ah. man ñi fi la wax man ëpp ma nit. yaakaar nga ne mënuñ jël réew mi invalidé laa ëpp ma nit. waaw bàyyi ko ba lu ko neex. xam Euh, suñu wax dëgg wax dëgg sénégalais yi dëgg. Hmm. parrainage bi si je pose la question est-ce que c'est une bonne chose ou pas est-ce que lu baax la wala wala lu bon la on va me dire la réponse que lu baax la. non le principe est bon. Ah, très merci. mais façon bi nga ko defee ak ah, piège yi moo baaxul. à part de piège ku conseil conseil dafa am jot nekk fi biir. tànn ay piège ay candidats. tànn ay piège non non xam nga Pape Diop jàllul. non xam nga jàllul kan moo jàll ay Madické Niang. mais xam nga loolu sabotage la waaye. mais quand même Madické Niang. mais waxuma amul nit de. waxuma amul nit mais nit ñi xel na ne kooku moo ëpp doole ñi nga xamante ne. Ah, parrainage xam nga parrainage c'est scientifique. waaw ban scientifique ku dépose 65000 ak koo xamante ni il mun amu ko. mais kooku le débat kooku am na premier premier élection bi jàll na pare man pour man lii ñu moom déjà premier tour bu premier tour bu ndaw la. échauffement la échauffement wane na ne. amuñu condition. remplir ñu condition pour diriger ce pays. Mhm. dëgg du sama bëb élection financière quand même c'est mhm. du sama bëb bu nekk rek wala am sa xaalis wala finance ñu financé ay financement yoo xamante ne kenn xamul foo ko jëlee ñu taxaw na ne man candidat élection te foo respecté su président warul bokk sax ndax sa mbër jàll na mais yow tiitoo ci ñi nga xamante ne léeg-léeg sax opposition woote ñu ne tuuti ni tafa ne mais am na ñu toog seen kër te gaddu seen carte xamoo li ñu fas yéene sénégalais yi sénégalais toog seen kër ko yor seen carte toog nga débat bi ñu def ne ay parrainage yi tous les sénégalais d'accord nañ ne parrainage bi li lu am solo la am na ñoo xam ne seen seen seen ñàkkum bokk ci langue bi bettul kenn. te mën na pare ne Moussa te doo ko wooteel aussi loolu am na. mais loolu loolu am lépp am lépp am mais xam ñu ne doole bi pour pour diriger Sénégal bi loolu Sénégal yi nag buñ la bu fekkee nag nañ la kaay parrainé am am la ne kaay ñëw nga ñëw mhm. motale sa sa waroon nañ def ba motale pourquoi defoon na ba motale yow sama morom bu ñu def ba matalee Pakaay dafa noonu. c'est pas que matalee moom boo ko moo la bloqué ay pièges rek ay tendre yooyu ñeneen ñi def échappé échappé piège yi. yi ñoom ñëpp ni ñu def noonu ba échappé piège yi. parce que réellement la sécurité bi bu mu laaj. liggéey bu mu laaj coono bu mu laaj ak organisation bu mu laaj loolu peut-être amoon na ko mais loolu dama dama nga njënguwaat parce que boo boo bëggee bëre taxaw bu bu stade bi ñu ne yow mi moom vraiment bokk dama taxaw fële da dem njëngu jiwaat hmm. dem lekk ba suur am doole ñoo toog tam dem ngem waa ñoo taxaw c'est la réalité d'accord nañ njëngu jiwaat hmm. léegi yow ci parrainage boobu noonu ak lim àndal ci coow lépp ak loi baak ak conseil constitutionnel yow amul fenn foo xamante ne ci observateur yi li ñu li ñu ngàññi ne manquement bëri na ñi ne logiciel bi baaxul yow amoo ci benn tiitaan wala loo yaakaaroon war nañ ko mën a rectifier balaa ñoo sori hmm. wax naa su wax naa sànq bi ñu fa tey loi bi président Macky Sall dafa woote kaay leen ñu waxtaan na si si ko sànq hmm. sur les modalités d' application parrainage bi mais yow nga si dara yaakaar ne bu ñu ñëwoon lii mën na am lu ko changé lu ko soppi corrigé fekkee am fekkee dafa am erreur wala na c'est trop rigoureux wala c'est trop serré c'est trop compliqué mm. mu ne ko tax ñoom nañ jox seen avis waxtaanee mais boo ñëwul gedd ñoom ñoo gedd dañoo boycotté mais tey ils n'ont que leurs yeux à te am ñu boycotté woon sax tey ñoom tey tey ba bokk nañ ci parrainage bi mm. parrainage c'est un sérieux parrainage sanction bi d'abord sanction bi mm. du ko sanction conseil constitutionnel pour que moo la ne yow mii wóolooguñ tey ji fu ñu toll 2018 2019 bu ñu nekk nii wóoluwuñ la pour nga mën a jiite suñu réew Sénégal du ay caaxaan élection présidentielle du ay caaxaan moo tax suma suma suma gisee yenn candidat yi xam nga di wax n'importe quoi pendant avant parrainage bi di wax wax yu wax yu rëy yoo xamante ne mais dafa mel ni ñoo ñoom dañuy dañuy fooy Sénégal hmm. élection bu gën a sérieuse ci Sénégal mooy élection présidentielle hmm. léegi lan la ñuy génnee léegi naan non réew mi léegi mu tàkk réew mi léegi mu nangam nañu moytu nangam li bu continuer Sénégal amul justice nangam mais au plan de boo jekkuwul. Mhm. demal nga nge wax wax waxtaan sénégalais uti ay nit ba jekku door a ñëw. Mhm. les menaces là Sénégal dëkk bi day tàkk dëkk bi day fu mu jëm ak. loolu sénégalais yi. ñu seen mhm. seen kër toog yor seen carte te toog. pour wàccee leen li seen candidat li seen ku nekk. da nga def 5 xam na. président Macky Sall lu mu fi def ak lu mu fi deful. d'accord ñun ñëpp xam nañ ko. dinañ ci lu mu liggéeyal réew mi ak lu mu fi liggéeyul réew mi ñëpp xam nañ ko. d'accord parce que liggéey bi mu donc nekk fi agiter de la peur. di stressé sénégalais yi ah ba kilifa dinañ commencé jóg naan ah dëkk bi jàmm lañ soxla jàmm lañ kii dëkk bi jàmm lay am d'accord jàmm lay am parce que fi ñu def yëpp lu leer la léegi nag euh, nga nekk victime wala nga nekk victime bu fi nekk di agité ay ay menaces de double menace de di di di di yi. yow loolu tiitalu la yow. a. waaye am nañu candidat sénégalais yi ñun xam na ni ñu voté. on sait voter on a changé de combien de président de mhm. parce que président mu ngi doon wax ne ñu adapté loi bi sur les données personnelles. Mhm. sur ce plan là aussi am na yu ñu jot a jël ci ay mesures bu yàggul yoo xam ne sax ndi woon na polémique bu rëy. Mhm. parce que dañu ne restriction de liberté ak yu mel noonu. yow sa avis ci loolu parce que itam loolu da cee am solo toujours parce que li ñu jëm yëpp. presque nouvelle technologie ak nouveaux médias yi. dañ ci am rôle bu am solo buñ ci nar a joué ba ci résultat élection ak yu mel noonu yëpp est-ce côté boobu laajul tuuti ñuy surveiller bañ a tëj a ba nga xam ne kii aussi da am possibilité pour exprimer waaw loolu euh, li ma ciy wax d'abord avant sax may wax ci loi bi ñu mujj voté muy code des communications électroniques mhm. ci rentrée des cours et tribunaux président daf ne dañu war a réformer mhm. euh, loi bi sur les à caractère personnel. Mhm. déjà loolu am solo la pourquoi Euh, loi bi janvier 2008 lañ ko voté woon. ñeenti loi la woon la loi sur la société de l'information la loi sur la cryptologie la loi sur les données à caractère personnel ak la loi sur les transactions électroniques. Mm. janvier 2008 janvier 2019 maintenant 11 ans te xam nga secteur bi. daf diggante 2008 li xewoon ci réseaux sociaux yi données personnelles yi nu ñu koy manipuler et cetera évolué na. mais même avant président di ko wax waa CDP nga xam ne ñoom ñooy commission de protection des données personnelles yaa deux mois def nañ ci benn atelier man participé woon naa ci ñu ne effectivement dañu war a réformer loi bi pour mu gën a adapté ak ni ñuy doxalee ci wàllu données personnelles yi aujourd'hui mm. mais boo génnee loolu euh, dugg maintenant ci euh, le code des communications électroniques mm. foofu la danger bi nekk mm. parce que code de communication électroniques dafay remplacer le code des télécommunications moom la ñu voté woon 2011 léegi code des communications électroniques euh, code bi baax na parce que effectivement dafay jël en compte euh, évolution yi am ci secteur yi parce que am nga wàllu informatique technologie dafay évoluer tellement que bokkut ak waa waa waa droit juriste yi nga xam ne wàllu droit dafa yeex hmm. alors que wàllu technologie dafay gaaw léegi nag il faut muy rattraper wu à chaque fois loi bi di rattraper technologie bi mais ci code bi dañ ci sërëxal ay dispositions yoo xam ne daf ñu xaw a tiital parce que code bi euh, bare na article mais am na benn cent vingt euh, article 127 article 27 plutôt ci dernier alinéa bi si la ñuy expliquer aspect neutralité du net xam nga neutralité du net mooy euh, dañuy wax opérateur bi jaay lu mel ne internet. Mhm. mu mu def mu neutre maanaam mu neutre mooy mhm. tey soo doon ubbi site bu mel ne walfnet point com comme opérateur dafa am site internet am. Mhm. wala concurrent am site internet am warul prioriser wax ne bii mooy gën a gaaw comme autoroute à péage ak hmm. léegi nag ci article vingt sept bi dañu dañu ne euh, dañuy jox euh, autorité de régulation bi nga xam ne mooy ARTP mais code bi sax dafay changer tur bi léegi dootul tudd ARTP ARCEP lay tudd autorité de régulation des communication électroniques et des post comme France France hmm. ARCEP lañ tudd aussi hmm. mais da gis ne. Euh, euh, bu ñu joxee autorité de régulation bi pour mu def li ñuy wax gestion de raisonnable des tra du trafic euh, dama leen jox benn exemple ñu ne zone front de terre bi à partir de demain am na manifestation bu fiy am boo xamante ni que y aura trois cent mille personnes mais réseau bi foofu dañ ko programmer pour mu jël deux cent mille personnes léegi dañuy wàññi dawale réseau bi ba nga xamante ni que tey par exemple su ma jëloon benn audio wala benn photo envoyé ko Ousmane Sène par WhatsApp réseau bi danay yéex yéex boo xamante ne daanaka du ma si jot. te xam nga loolu comme ci ay élection lañu jëm. dañuy ragal mu nekk une forme de censure parce que booy xool réew yu bare première décision bi état di jël ci bu coow amee rek mooy couper internet bi tentative de coup d'état bi amee Gabon. Mhm. automatiquement dañuy couper internet bi démb lañ koy soog a rétablir. république démocratique du mhm. Congo xam nga biig la ñuy soog a programme proclamer résultat yi mais mhm. ba léegi ubbeeguñu internet bi. te di te dañ ne dañ ne autorité moom moo jël disposition ñu sax internet dañ ne ak SMS yi aussi. Hmm. maanaam génn nañ sax wàllu cadre internet dañ ne SMS te pourtant ñoom ci seen ay loi ñu fa sax ne dañuy war a def nii mais Sénégal dañoo jël les devant bind ko ci loi bi voté ko assemblée nationale nga xam ne tey bu état bi jëloon décret wala euh, euh, autorité de régulation bi jël décision ne. Hmm. internet du jour élection pour bañ coow am parce que gars ñi ngi naan pouvoir mi ngi koy jiñ opposition opposition mi ngi koy jiñ pouvoir ne dinañ taal réew mi mhm. ñu ne dañuy bañ ñi taal réew mi dañuy couper internet et pourtant internet taal réew tax ko jóg mhm. internet day jàllale information mhm. par exemple jour élection bi journalistes yi mën nañu utiliser internet pour envoyé information ci déroulement bi ci résultats yi et cetera euh, euh, euh, kii candidats yi suñ toogee seen ay quartiers généraux mën nañu utiliser internet pour seen ay représentants yónnee leen information mhm. et cetera léegi nag comme loi permettre na tey autorité mu mu mu wàññi doole internet wala sax mu coupé ko mhm. wala mu mu ne bon zone xaar yàlla du ñu am waaye zone Pikine dinañ am parce que foofu y'a moins de risque et cetera te mhm. pourtant loolu loi bi dañ ko bind léegi mu clair tiitaange boobu lañ ci am mais comme malheureusement loi bi jàll na on a interpellé les députés bon finalement encore mujjul euh, mujjul tax mu mu bañ a jaar ça va s'appliquer aux ki ñu wax dafa xaw a ah. mm. parce que boo xoolee la c'était quoi c'était deux mille euh, deux mille dix-huit non janvier euh, la xam nga ñu ngi ko voté novembre 28 novembre 2018 bii passé assemblée. donc xam nga li ñu wax nii dafa mel ni aujourd'hui y a une politique ourdie pour élection bu jotee rek. nguur gi def def yoo xamante ne kenn mësu ko fi kenn mësu ko fi gis hmm. élection yi jàll fan lañ coupé internet Sénégal. non moom waxul ne dañu coupé mais dane am nañ droit coupé dafa souligné ay fait dafa wax ay fait dans nos textes tey yoon may na état mu coupé internet bi su fekkee coow dafa am wala fekkee y a des risques wala yooyu loolu la wax. loolu loolu même avant même avant texte bi état état souverainement même avant texte bi état am na ci léegi droit. pour des raisons de sécurité nationale. état am na possibilité couper même même pas internet mais couper toutes sortes de communication. très bien par exemple na suite épreuve yi nga leeral nag parce que loolu c'est des c'est des un pouvoir souverain de chaque état nag laa wax nag. effectivement uh-huh. muy France muy fu mu doon uh-huh. état. am na possibilité couper toute forme de communication ouais, dans le pays raison valable mais ko waxee nii mel ni tey jii mhm. élection présidentielle lañ jëm état bi mu ngi organiser de telle que jour élection dañuy couper couper internet internet bi fii pour parti yi wala pour gars yi bañ yooyu non au contraire loolu élection législative bi jàll amu fi woon léegi dama lay jox benn exemple mais moom. dama lay jox rek ne état état mën na ko état mën na ko am na pouvoir bi mais. état ñàkkul élégance bay ñëw organiser euh, ñu am ñaari alternance comme ni nga ko waxee. mu xëy a xëy di coupé ne. coupé bëgguma résultat yi jàll. non dafa wax ne mën na ko te coïncidence am na def nañ ko. ba pare ñu ngi dem ci élection ça amul coïncidence dafa leer nañ il faut que les choses soient mm. clairement dites. Mm. amul benn organisation benn plan pour couper internet ay si élection bi si élection bi ñëwee loolu mosu fi am. te du fi am kay mu leer yow wax nga ko lu leer la. benn exemple laa joxe ñu nekk amul nekk. fee bu sénégalais yu bare constaté mooy guddi bi ñuy libéré Karim Wade di ko defal grâce présidentielle mhm. pour mu génn réew mi guddi googu de une heure du matin ba trois heures du matin internet amul woon Sénégal yu bare constaté nañ ko mhm. te ba léegi may wax ak yow du opérateur yi du régulateur bi ñoo def communication wax ne lii moo taxoon internet amul woon mais nit ñi constaté woon nañ ne mhm. internet amul woon loolu nit ñi constaté woon nañ ko mais ba tey expliqué wuñ ne lii moo taxoon am na benn opérateur bu wax ne en tout cas moom de du ci moom. Hmm. en tout cas techniquement gisul benn problème mais sinon globalement amul benn communication officielle bu ne bu wane ne te pourtant boobu ba léegi internet mi ngi am de temps en temps nga constaté. Hmm. ay ay ay ay lenteur léegi nag pourquoi boobu. c'est tout mën hmm. foofu. xam nga il faut pas que ñuy xam nga xam nga la ma gën a graaw mooy spéculation. xaniwaat mi génn gars yi xaw ma yëgoon ne yëgoon yëgoon sa guddi googu mi génn kenn suñu kenn suñu yëgu ko mm-hmm. voilà donc mën nañu jël jéem a def ay relation mm-hmm. entre fonctionnement suñu système communication bi ak les événements politiques mm-hmm. y' a pas de relation d' ailleurs. tombe tombe bu amee quand même mën nga ko souligner. moom ah. tombe rek la wax waxuñu ne. bu ma naan wéy seetlu naa buy kanam kanam doon génn. ah au monde réseau au monde réseau man sànq suba rek sànq suba rek am dans mon suba dans mon bureau. ma ma problème internet naa ne ah. tey jii peut-être concerné li mu décidé par rapport bi donc. Hmm. Euh, euh, xam nga foofu foofu foofu bu ñu instauré ay psychose ci bopp Sénégal si suñu réew mi. man damaa jàpp yow sa domaine yi mooy yi mooy taal réew ah souvent parce que psychose yooyu moo koy moo koy indi. sa domaine mi nga wax comme ci ah. loi bi maîtriser ko moom itam day wax domaine bi maîtriser ah. expliqué. parce que aussi lanceur d'alerte la sur ce plan sax laay wax constat waxuñu ne loolu moom mooy am mooy am nangam mais mën na ne mais xam moom Sénégal xam nga moom def pour améliorer suñu qualité internet moo tax nag dafa a la meilleure qualité la wax na la na ñëw ci Sénégal ne on a loolu am nañ capacité mais yaakaarul ne nañ ko fay mën a def capacité internet suñ suñu fonctionnement internet tey hmm. c'est moo ëpp fii tey laaw ci Afrique de l'Ouest yi ba mu leer loolu loolu leer moo xam na ko le confirme d'accord la d'accord voilà parce que wala boog bâtonnier bi en tout cas am na ku wax ci ñoom wala président Badione nañ fexe ba lanceur d'alerte yi aussi ñu gën leen aar protéger leen mm-hmm. parce que aussi li doon wax sànq critique dafa am solo amélioré wu moo tax nga orienté wu sur ce plan aussi yaakaar naa bu président waxee ne euh, une un meilleur accès à la justice justice accessible efficace ba pare aussi ñu protéger lanceur d' alerte yi yaakaar loolu bu mënee am ñu jëm ci élection aussi lu am solo la mais dama xamul ndax yow bokk nga ci ñi gën am yaakaar ci loolu parce que am nga tiitaange bu baax daal ci li marché soo waxee sama xel di dem ci Sidy Lamine Niass hmm. ak a monoon loolu ak a mënoon nekk ci côté peuple bi bu problème amee mu wax ko ñëpp dégg ko mu leeral ko teg ko ci wax lu leer. Mm. moo tax vraiment ñu ngi regretté bu baax a baax a baax a baax a baax bu demee ci jamono yi nga xam ne soxlaloon nañ baatam. Mm. xam nga euh, informatique euh, développé na Sénégal on réseau. Ah, kon lu tax ñu am problème kon pour créer logiciel boo xam ne boo dugalee doublon mu bañ. Mm. la ñu ma wax sànq je le dama ni. buñ la denkee service public da nga war a def loo xam ne moo baax ci nit ñi moo baax ci réew mi li ñu waroon def mooy un. bu dee mu ñu jox fichier électoral parce que ñu ngi koy laaj te xam nga lu ñuy laaj parce que jour élection dañu ko affiché ci bureau de vote yi. am de li ci bureau de vote du fichier électoral. waaw lu ñu ciy laaj. bon d' accord léegi bu ñu mënul jox fichier ñu la benn logiciel et c' est possible boo xam ni day dàq bépp jumte. loolu mooy dimbali la pour nga jàll bu ñu ko joxee te jàlloo nag ñu xam ne kon yow vraiment kenn mënu la dimbali bon li battu ñeen wax dafa am importance te waa APR lu ñu comprendre lu ak waa PS yi moo cri mooy critique day defar nit Senghor nee na man su ma yeewoo la matin damay lire journal d'opposition xool yi ma bañ ndax ñoom ñoo tax ñoom ñoo mën a tax ma defaru waaye luñ la wax nga ne c'est pas vrai luñ la critiqué nga ne c'est pas vrai Sénégal moo baax alors que nous sommes dans les pays les parmi les pays les plus pauvres de la mm-hmm. defar naa lii defar naa tel defar naa defar naa lee ba bu ñu demee ci calculer réew yi ana ku sa morom Sénégal bokk ci ñu jël ndaare ndaare mais war nga critiquer sa bopp loolu nag moo tax ñu war a may Sénégalais yi mën a wax aa ah, bu ñu wax ci pétrole parce que mais dañu wax ci pétrole te moom suñu pétrole président Macky Sall bu defoon cinquante mën naa dina wàcc bàyyi fi pétrole bi parce que ñun ñoo ko moom daañ cee wax ba suñu xool sedd parce que suñu alal la am nañ sax droit wax ci ju juum bien sûr waaw kon moom am amuloo taxaw naan non que ñu ngi ci ya nga ci wax te amu nañ ci dara waaw d' accord xamuñu dara mais am nañ ci wax te parce que ñoo ko moom xam nga njiit day dem ba commencé naagu day fàtte ni gendarme bu ñu jox garde rouge bi ñun ñoo koy fay du yow de li nga inauguré fee suñu alal la nga ci wane sa photo alors que di nga wàcc bàyyi alal bàyyi loolu foofu kon fësalal drapeau Sénégal ndax alalu Sénégal le président Sénégal nga. moo ko liggéey waaye toujours boo ko liggéeyee nag. ah alors quand même ku liggéeyul leneen géré quand defar tali yomb na yow soo nga defar tali qu'est-ce que tu fais da ngay dem appel d'offre parce que du yaay tabax tali bi. day hmm. appel d'offre ñu ne am na mooy les jël expert ñu contrôler nga jël ko mën tane kon am xëy dama defal tali bi. je ne dis pas que mu ci mérite quand même faut pas faut pas. ah, ah, ah waaye nag waaye nag li may wax mooy li may wax mooy. bul ci naagu. defal nga Dakar defoo stade Matam defoo stade Kédougou. dafa stade seen dafa stade Kaolack. ak Koura Sow soxla soxla soxla nañ kon yow da war a jàpp da war sax xeeb li nga def. Mm-hmm. mais ne def na stade d' accord maa ko defar baax na waaye maa ngi daw rapidement feneen def fa stade. Mm-hmm. waaye ngay dawli lii rek woo nit ñi woo tëggukatu samar woo tëggukatu sabar yi ne man def maa defal maa defalee wane sa bopp ba pare fàtte Sénégal. Mm-hmm. drapeau Sénégal nga fa war a def. non Macky Sall mooy Sénégal ndax na Macky Sall a fàtte Sénégal quand même arrêté quand même ñii defar tali bii diggante kaw euh, Kolda Bill Clinton wala président américain dañ ne la drapeau Amérique peuple américain moom may Sénégal tali bi benn photo président newu fa loolu mooy yoon loolu mooy républicain kon pour jeexal ci gàttal mhm. bâtonnier wax na dëgg mhm. nañu bàyyi nit ñi wax yow buur nga déglul bu ñu waxee li nga jàpp ne yenn maanaa da nga ci sukkandiku pour améliorer wu li nga jàpp ne wax opposition la ba ko fa waaye bu ko ngañ ndax ki ko wax am na droit wax mm-hmm. waaye booy tëj euh, euh, làmmiñu nit ñi ko jëpp ragal i su waxee dañ a yóbbu dig wala loolu yaa ngi yee fitna mm-hmm. man foofu laay waxee kenn bëggul fitna Sénégal mm-hmm. kenn wooteel pour fitna jàmm lañu bëgg mais njiit dana poser ay actes yoo xam ne loolu mooy yee fitna Batoña aussi nee na euh, réseaux sociaux yi ñu gën a responsable waaw parce que nee na loolu dafa nekk reflet peuple sénégalais bu fekkee ay saaga ak dal ci kaw non non non d'accord naa saaga baaxul ci réseaux sociaux ak ci feneen du opposant du pouvoir du sénégalais wax mm. kenn waxta saaga mm. waxul sa xalaat ci yarax tegin bul saaga bul xaste mm. loolu d'accord naa képp ku saaga ay la ñu sanctionné la mm-hmm. Mm-hmm. je suis d'accord pour ça d'accord ndax am na lu président Macky Sall xam ne def loo xam ne baax na mm-hmm. lii moo wax ni wax na dëgg am na yeneen xam ne wax na dëgg mais nañ nangu aussi bu defee loo xam ne baaxul ñu wax ko hmm. ku taxaw ne damay def damay def mandat de sept sept ans nga def cinq ans naan mooy constitutionnel mais nañu wax ne baaxul hmm. ku taxaw ne alors nañu nañ na ñu tudd ci Ousmane Gomour organiser élection hmm. parce que dafa pare ñu indil la Cheikh moom nga ne ba ba tey maa bañ ndax Cheikh moom Cheikh Cheikh Gueye Ousmane Ngom moo ko faral nga ne président ñu la dindil ngoy ngu yaa ngi ne yaa bañ vidéo yaa ngi ni fi mu koy wax mi ngi ne ci vidéo yi d'accord alors loolu ñu ko ngañ Moussa parce que su boobaa bu ñu waxee ne président aussi nee na dafa bëgg dañu fexe ba garantir l'égalité de tous devant la loi loolu fan nañ ko war a jaar parce que manquement yi ñuy ñu bari na yàlla nga yaakaar ne war nañ ko mën a teggi xam nga déjà bon la démocratie dañ ko toujours parfaire hmm. mais balaa ma balaa ma wax ci foofu sax bon je dis que aussi président Macky Sall xam nga fii tey ñu ñuy toog fi ñu tey jii surtout ñu suñu suñu suñu suñu suñu genre yi c'est-à-dire que nous sommes des di politique pour jàppale suñuy gox jàppale suñu Sénégal Sénégal ñëpp ko bokk. parce Sénégal Macky Sall Sénégal la ba Sénégal Sénégal bokk. parce que boo ko waxee naa pétrole ñoo ko moom dafa mel moom koy da nga koy comme comme tout le monde. qui a vécu au Sénégal comme comme tout le monde Sénégal c'est un pays démocrate ah. démocratique nit ku di neex lay wax fii Sénégal mais wax yu wax yu ñu ñuy wax fii bu dëgg bëccëg fii c'est un pays de liberté et de démocratie Sénégal c'est un mën nañu nag parce que démocratie doyul hmm. mais man. président Macky Sall tey bu liggéey Sénégal liggéeyal liggéeyal pour pour yóbbu këram bu inauguré ay pont ay ay route ay autoroute ay ay ay pont Sénégal Sénégal Gambie mais xanaa kay Sénégalais mën nañu ko wax jërëjëf. non façon bi façon bi parce que parce que ko def dugal ko feneen nañ ko fi mënoon na ko dugal feneen. dañ koy def. ba ëllëg ay cri cri di si ñëw gis nañ ko fi mais si nekk dëkk bi def mu nekk ay projet yu am solo yoo xam ne dafa transformer suñu pays terre bi ñu a nga wax cher na cherul léegi yow mais ndax nañ lii sa plateforme Sénégal mu nax bañee def mais Sénégalais kam nañ droit que Sénégalais kam ñaan ñaan moom am nañ droit que ne président président Macky Sall jërëjëf loolu ñoom ñoom ñu amee droit ne boo baaxul cher na soxlawuñu ko c'est un pays pauvre ñoom seen droit opposant droit la loolu moom mais nañ ko mais ne kontaan nañ ci liggéey lu mu liggéey Sénégal ngeen ko c'est démocratie léegi bilan bi bilan bi rafet léegi nag côté yoon tegu ci yoon aussi lu am solo la loolu moom dafa fondamental ci euh, euh, république Ousmane Sène hmm. da ngay da ngay ci benn piège hmm. bi sama les ñu woowee les invalidés là. ñu mhm. man damay laaj. waaw man dama laaj parce que fekk nga laajte man waaw ah, li fekk nga laajte en tant qu'expert lay laaj ci yoon boobu ndax tegu na ci yoon wala bu tegu lan lañ war a. def man ci waaw xam nga léegi man boo laajtee boo laajee ne Sénégal est que tegu na ci yoon même fekkee bilan bi sax bon loolu moom kenn waxatu ko. xam nga daanu ko ci piège bi daa parce que question bi piège la. non parce que coow li dafa bëri ci yoon. Ah. man ma lay laaj en tant que expert. yow naka eh, ngay leeral sama coow parce que élection présidentielle lañ jëm am nañ candidat boo xam ne un président sortant boo xam ne dafa bëgg amaat beneen deuxième mandat opposants yi wala les invalidés comme ni ma leen di woowee ñooñu te ji fépp lu mu ko mën a galgale dañ koy jëm ko jëm a galgal mais xam nañ ne sa Sénégal yëpp d' accord nañ ko moom vraiment d' accord nañ ne côté bilan par rapport 2012 ba 2019 tey jii président Macky par rapport ak moyens yi Sénégalais mettre à sa mettre à sa disposition. ñëpp d'accord nañ ne vraiment liggéeyal na réew mi côté boobu amuñ ci amuñ amul débat te te politique ñi ñi les invalides c'est des politiciens ah léegi ñoom xam nañ ne débat sur le bilan moom ku ko fi engagé Sénégalais lay xas. xam nañ ko wàcc na xam nga maintenant léegi. Mhm. lan la gars yi euh, lan ban ban xam nga opposant c'est des politiciens c'est des stratégies des stratèges politiques te jéem a indi ay galgal yi bees mooy lan na ah dañ xool loo xamante ne boo ko joxoñee ku nekk mun na ci wax ba géex mais duñ d'accord ku nekk mu nga ci wax mun nga mun nga wax oui comme mun nga wax non mun nga ci mu kii Ousmane Sène mu nga am benn benn position bi wax ci ba sonn te kenn kenn mën si jëlee te te te en nga wax dëgg parce que mën mën a ressembler à une mooy justice tey jii débat bu ñu opposition bëgg a yóbbu mooy débat sur la justice Sénégal amul justice d'autant plus qu'on a des cas on a deux grands cas mooy cas Karim Wade ak cas Khalifa Sall mi ñëw ñëpp xam nañ ne ñoom muñ nekk candidat ñoom xam nañ ko mais ils continuer parce que opposant opposant jii Karim Wade mënul nekk candidat tout le monde la sait. Khalifa Kaam évacué ko tout le monde sait ça c'est que que Khalifa Sall ne sera pas candidat du nekk candidat. Ah. parce que remplir condition yu yu bi teg ñoom xam nañ ko de. Hmm. mais gis léegi tey jii parce la gis ñoom ñëpp ñu engagé wu tey ci combat boobu opposant yi parce que ñoom à la limite sax ñoom sax loolu la ñuy ñaan. que Khalifa bañ a bokk que que que que Karim Wade bañ a bokk parce c'est du genre je moi non plus. mën naa jàppale wante boo suuxee ma ma ma jéem a récupérer li nga yor. c'est ça la stratégie moo tax doo leen dégg kon wax ne rabadare bi c'est pas. doo ay eh, parce que def def nañ fi ay ay pause ay plateforme opérationnelle de sécurisation xam nga des élections. Mhm. pour wane ne parce c'est ça la stratégie xam nañu bilan moom out lan la ñuy wax léegi mhm. ay justice. ay noonu élection dafa am ay ay 3 4 moo fi am mhm. élection bi du leer dafa ay sàcc bon léegi sax sa waay sax moom mu ngi ciy dugg ci piège bi mhm. ba naan internet dañ koy coupé mhm. jour kii waaw loolu la wax loolu la wax si c'est ko def la ne <laughs> am nañ possibilité coupé ko am nañu droit coupé ko waaye xalaatul ci Sénégal xanaa ñu def lu mel noonu yaakaar ko voilà merci merci merci premier sac ah, dama yaakaar man dama weesu foo xam ne dañu war a joxe résultat ñu coupé internet wala te loolu te loolu loolu franchement c'est un conseil si je me permets si pour me permettre mun naa mm. conseil opposant yi mm. sénégalais sénégalais dépassé nañu débat élection dañ koy sàcc wala duñ ko sàcc opposition bi waxuñ loolu non ñoom ay ay ay ministre de l'intérieur kii liñ def euh, Touba lan la ministre de l'intérieur euh, waru organiser élection xam nga loolu mm. c'est un débat franchement. xanaa tey euh, dafa re risque bu réyee la président ma ko doon wax de. non dafa risque bu réyee la. sa président ma ko doon wax léegi. xam nga élection Sénégal Sénégal yoo xam nañ ku nekk boo xam ne dimanche bu solo yëram dem vote ji wóor na ko ne waa waam dinañ ko compter. pour le Sénégal xam nañ ko wax ne xanaa Sénégal duñ sàcc élection mais mënuñ sàcc élection ak li si wax ni lu mën a nekk la mais xanaa kay da ngeen mën a wax ne kay duñ ko def wala parce que RD RD Congo problème am na fa déjà. nous sommes nous sommes pas Congo tamit euh, Ousmane Sène Sénégal. attention nous sommes des Sénégalais. parce que monde bi day évoluer en fonction de ni mu évoluer noonu la nit di changer. est ce que li nga doon défendre 2012 ak li nga défendre actuellement. Euh. mu bokkul benn xam nga. Mhm. xam nga bu bu bu premier point bi président Macky Sall changé na euh, position par rapport ak 2012 ak léegi. 2012 mhm. était dans l' opposition. Mhm. période opposition xam nañ Abdoulaye Wade mooy kan aussi ah xam nañ kan lañ amal affaire ak lu ko nguuru jaral mook doomam ak ak staff xam nañ ko. lim capable xam xam nañ xam nañ lu hmm. ko côté anti démocratie Macky Sall amul amul boobu capacité. terewul kenn dem élection hmm. maa ngi ñëw maa ngi ñëw ku ku dem ba ba taxaw naan maa ngi maa ngi ut beneen troisième yooyu xam nga kooku du mu capable xam nañ ko. Hmm. donc à l'époque c'était ça la crainte mais aujourd'hui tey fu ñu wax nii sénégalais dans la majorité am nañ conviction que ni ñu élection locale yi passé ni ñu élection législative yi élection présidentielle noonu lañ xëy dimanche février dem voté ku leen neex te te te seen voix dina mm-hmm. donc bu ñu indi débat dëggantaan parce que sénégalais tey bu ñu voté 24 février lu tax ñu war a voté parce que c'est tax ñuy war ji mm-hmm. bu dem parce que naan dëkk bi amul justice waaye dëkk bi élection bi dañ koy sàcc dem dem voté loolu c'est pas ça qui détermine le vote vote du Sénégal la ma ko déterminé. Mm-hmm. ki ñuy fal nii ki ñuy fal nii mu nar jël suñu réew de deux mille dix neuf à deux mille vingt quatre. Mm-hmm. est ce que ko joxee suñu réew dinañu garantir une économie fiable dinañu garantir un pays en voie de développement. Mm-hmm. est ce que dinañu suñu sécurité est ce que dinañu assurer dinañu gis si moom sax ay ay ay benn vision pour mu jëmale Sénégal kanam loolu mooy déterminant est ce que président la ñu wax. mais duñ dem di voté ji parce que simplement hmm. euh, kii euh, justice ko topp wala sama candidat bi dañ ko recalé euh, invalidé la donc ma dama mer ngeen bu voté ko ma neex non non non on parle du Sénégal d'accord dinañ on parle du Sénégal parce que Ludovic ci hmm. côté boobu nga xam ne presque ñu ngi ci situation boobu mu doon wax maanaam président Abdoulaye Wade dañ ne woon amoon na droit awoon second mandat nekkul woon troisième mandat ñii ñu ngi yëkkatiwaat question troisième mandat sax ci bi président Macky Sall defee sept hmm. yooyu yëpp boo ko dajalee maa ngi ko doon posé question bi ndax yoon tegu na ci yoon mu ne lu tax yow est-ce que mën nga tontu ci loolu. waa xam nga euh, njiit bu ñu liggéey ba noppi ñu koy seet ndax dañ koy falaat hmm. ñaar la jëf yi ak jikko bi wala doxal doxalin bi. Hmm. Hmm. bu doon jëf rek réel daal Ablaye Wade wàcc Ablaye moo révolutionné Sénégal xam nañ jëppan nañ ko pourtant wàccee nañ ko xam nga boroom kër. boo réalisé ay télévision écran plat canal joxe dépense su cent mille francs par jour te su jikko baaxul est-ce que dañu la naw loolu lay problème bi. loo munti réalisé loo munti jox ci dépense lu munti dey un million dépense boo ko joxee par jour bu fekkee ne mënoo yemale say doom bu fekkee ne yaa ngi njaaloo bu fekkee ne yaa ngi sàcc bu fekkee ne yaa ngi def lu ñaaw duñ la naw donte yaa ngi joxe xaalis donte yaa ngi réalisé loolu lay problème est-ce que nit ku taxaw ne bugguma en tant qu'opposant ku faree organiser élection ñu ne ko d'accord dindi ko nga falu ñu ñaan la loolu nga bañ est rafet na Sénégalais duñu bàyyi xel loolu bu ñuy vote est-ce que ku taxaw fii pendant cinq ans wóor ba États-Unis ba France ne man damay def mandat pendant damay def mandat wu cinq ans nga jékki-jékki taxaw ne conseil moom ma ko tere bu ñu vote duñu xalaat loolu c'est la réalité kon bul xalaat kese ay def naa diif def naa pont defar réalisation yomb na am na ñoo xam ne ah, yomb na seen jikko baaxul waaye tabax nañ kër borom kër yaa ngi fi am nañu baax am nañu baaxul kon tabax kër tabax tali loolu kenn wax ne amul importance mais du du ndam du wane euh, jikko nit jikko nit nu muy gouverner nu muy doxale nu muy sàmm kàddoom nu muy uuf njaboot gi lu muy yemale nit ñi loolu la ñuy seet te loolu gàllankoor la ci président Macky Sall non Ludovic Grossner ñu jeexal Mountaga Cissé ci euh, réseaux sociaux yi nga xam ne tey jii ñoom aussi dañoo déterminant ci affaire yi ay lanceur d' alerte lañ mm. seen protection aussi parce que wax nañu loi yoo xamante ne toujours dina encadrer protéger ñeneen ñi population beeg yooyu mais yéen aussi lanceur d'alerte aussi ni ñu leen di encadrer est-ce que yaakaaroon ci loi bi ñu gën a am fu ñu gën a euh, desserrer tuuti pour ngeen am liberté. waaw non loolu lu am solo la bi ko président waxee euh, dañuy dañuy applaudir parce que effectivement. dafa nekk loo xam ne àdduna bi yëpp ah, presque mën naa wax lu xaw bees la ci ñoom muy États-Unis di mm-hmm. France ñu ngi créer ay loi pour protéger les lanceurs d'alerte mm-hmm. parce que lanceur d'alerte sax mm-hmm. xëy na euh, internet bi la ñuy jàpp ne moo ko indi mais lanceur d'alerte yàgg na am yàgg na am avant même même avant rajo ah c'est-à-dire même ci média écrite euh, média euh, presque écrite bi daanaka amoon na ay lanceur d'alerte nga xam dañ daan bind signé ak yeneen tur mais dañuy dénoncer ay yoo xam ne dina permettre pouvoir bi mu mën a corriger donc bu ñu créer ay loi pour protéger lanceur d'alerte yi ci gën leen gën leen jox aspect anonyme bi parce que ñoom euh, euh, seen rôle c'est surtout euh, fexe ba li nga xam ne kenn sañu ko wax ci kaw ñoom ñu wax ko wala peut-être am nañ information boo xamante ne que ñëpp amuñu si accès ñu wax ko ba ñëpp yëkk yi ci ay questions booy xool Sénégal jamono yi information yu bare génn na mais xëy na demuñu au bout parce que lanceur d'alerte bi aussi moom son rôle mooy mu mu mu génnee information bi xibaar wax ko léegi nag maintenant rôle ñi si des mooy soit le procureur wala euh, nguur gi ci boppam de façon générale wala sax mhm. euh, citoyen yi mhm. poser ay questions ñi dem jusqu'au bout pour régler problème boobu mais beneen aspect aussi li ko bëggoon balaa may jeexal. ci parce que xam nga euh, comme dañoo nekk ci phase pré campagne. Euh, ñu ne parce que comme ci affaire loi la ñuy wax toujours. CNRA euh, conseil national de régulation de l'audiovisuel dafa dafa sukkandiku ci loi électorale bi. pour très tere. médias yi ñi jàllale ay propagande euh, parti politique yi candidats yi et cetera mais xam nga xam nga li ci li ci doy waar mooy déjà ñu bare analyse politique yu bare wax nañ ne ko loolu da dañ ko passé parce que mm-hmm. jamono ji euh, déjà même journaliste dañu am problème pour xam fan la ñu war a yem lan mooy propagande ak lan moo dul propagande mm-hmm. mais mais li ci li ci reelu mooy aujourd'hui euh, benn candidat moom buñ nekk yow waratuloo jaar ci médias yi ci phase pré campagne ba campagne bi di démarré mm-hmm. mais moom bu fekkee am na page Facebook am mu am cent et quelques mille personnes yu koy suivre mais mën na fa def ay activités mën na fa wane li muy li muy li muy li muy li muy li muy def te su boobaa CNRA waxul réseaux sociaux et CNRA presse en ligne rek la yem ak rajo ak télé ak presse écrite mhm. donc maanaam loi bi dafa dafa obsolète dañ ko passé beneen aspec bi aussi mooy presse en ligne bi ci boppam parce que presse en ligne bi ñu ci ëpp ñoom li ñuy dundee mooy publicité publicité yi ñuy affiché ci site bi mhm. te publicité yooyu li ci ëpp Google lay jógee li ñuy wax Google AdSense nga mhm. xamante ne que man euh, dama am téléphone yu may jaay am benn marque ma inscrire que ne que demal site internet A ak B ak nga affiché ma publicité bi foofu mais su ma nekkee politicien nekk nekk candidat mën naa jaar foofu dem Google fay ko nekk dama lay fay 100 euros pour que nga afficher ma sama publicité site internet A ak B ak C. Mm-hmm. mais site internet boobu bu fekkee loolu mooy modèle économique am loolu lay gañee xaalis moom xëy na du fermer publicité boobu. Mm-hmm. te su boobaa kon na. li CNRA wax te mhm. pourtant wàccul yoon mhm. parce que yoon wax ko ne que bul bul jàllale euh, propagande bi bul jàllale propagande mais publicité bi nga xamante ne feneen la jógee Google nga xam ne amul nekkul Sénégal amuñu fi benn kii amuñu fi benn euh, condition boo xamante ne que actuellement li fi xam sax mhm. réseaux sociaux yi également Facebook nekkuñu Sénégal bien que ni am nañ fi ay représentant am nañ ñoo xamante ne que élection yi di ñëw ñu ngi ciy réfléchir xool ni ñuy fexe ba dinañ wàññi publicité euh, politique sur les réseaux sociaux que amoon na fu mel ne États-Unis mhm. ak conséquences yi mu jur donc loolu ngay gis ne toujours boo ñëwee ci wàllu waa dañuy nekk toujours en retard dañ mhm. ko war a mën a régler par rapport ak loolu war ko moderniser Mountaga mhm. Cissé maa ngi lay gërëm jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant maître Moussa Bocar Thiam waaw maa ngi lay gërëm di la di nuyu waa Ourossogui ah, bu baax voilà ñu leen di wax baax bandira bu ñu sànni sama sama sa sa sa buur yi sa buur yi sa buur jaam yi sa buur yi waaw maa ngi lay gërëm di la sant wax naa loo xam ne neexul ñu maa ngi ci jégalu naa débat bi sax loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm di sant baax Oustaz Assane bi mu réalisé émission bi di gërëm di sant baax équipe bi René Charles Fall ak Cheikh Tidiane Diop ak kii di Serigne ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci liggéey bi nga xamante ne ànd nañ ci ak ñun gërëm sant bu baax nag ñu àndoon ak ñun itam di ñu seetaan ci seen émission diine ak jamono di leen jox daje ci beneen émission incha allah wa salaam